asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant yàlla borom asamaan suuf am mbégte dikkaat fii ci seen jotaay senegaal ca kanam Sénégal ca kanam wala sunu réew mi nuñ koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yépp nan la ñuy yëkkatee gàllankoor yi ba mu doon réew mu suqaliku réew moo xam ni ay doomam dañuy bëgg suñ ko tuddee ay doomam seen nekkin seen dundin dafay neex dafay teey dafay sell ndax tey suñ réew mi suñu waxalee yàlla rek dañuy nangu ne niñ ko bëggee taxeewul noonu réew mi am na sooxee ci fànn yu bari wàllum jàng ak njàngale wàllum liggéey wàllum lekk wàllum naan wàllum dem ak ñëw wàllum cet ñu ñëpp gis tey nekk suñ réew mi setul tey ndakaaru moom moo waroon nekk seetu boo xam ne ñëpp buñ ko xoolee ne ah capital bi de moom yànji na waaye ndakaaru setul Sigicoor euh, setul euh, kawlax setul euh, Touba setul maanaam daal réew mi foo laal rek am na foo xam ni am na lu fay metti te bés bu ne dama naan ñun Sénégal yàlla daf ñu beral loxo ndax si réew mi dara dara manqué wu fi yàlla mbooleem koom yi doomu aadama mën a soxla yëpp ngir suqaliku yàlla def na ko fi muy géej di suuf di di ndox mu sell di euh, ay nit yoo xam ni ay ndaw lañ ñu boroomi xel lañ di koom bu ne si biir suuf si lu mel ni ay or lu mel ni ay marbre lu mel ni ay euh, weñ lu mel ni ay phosphate lu mel ni ay gaz lu mel ni ay pétrole fële ca géeju sigu coor bi yooyu yëpp ñun am na si suñ réew lu tax nag suqalikuwul loolu bés bu ne dañuy ami gan yoo xam dañ fi dikk ngir euh, joxe si seen xalaat tey ñu ngi si ànd ak euh, Serigne bu Kébé moom euh, di borom xam-xam di gëstukat di doomi Touba ak euh, Mamadou Ndoye Bane moom ñu xam ko si wàllum rajo yeeg télé yi mu am waar woo xam ni mu ngi ko si bay Serigne Souaïbou ñu ngi lay nuyu di la dalal di la ziar waaleykum salaam wa rahmatullah partagé ci xalaat bu rafet bi nga am ci euh, concept Sénégal ci kanam yaakaar naa ne bu ñëpp mel ne yow euh, incha allah euh, jëm kanam dana am incha allah. incha ñu ngi ziar mbooleemi waa Touba yëpp doore ko si xalif ba ba sunu wóolare fa nekk yëpp sunu waa kër yëpp waa Taïf sëñ Ismaël Mbacke sama sama wóolare sama doomi ndeyit Euh, ñoom soxna Dior Niang ñoom ñëpp ñu leen di ziar euh, sëñ bi ban. ñu ngi lay nuyu la daal di la ziar yow it. ñu ngi lay ziar Tunkara di ziar ñi ngay xam ne dañuy seetaan 2S ñëpp di ziar waa Pire Sañokor ba ba pare. piir ga ma dëkk ak euh, waa Sénégal yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax. tey nag gis nañ fii Mamadou dundooy Bane toog ndax moom si maanaam ñoo bokk liggéey bi. Hmm. bokk télé rajo su dikkee am nañ sañ-sañu. Hmm. cëralee ko lii. Mhm. ganalee ko ko. waaw sëñ Chouaib sëñ yow yow lan nga jàng. Eh, mm. daara lañ ma lañ ma. daara sëñ Saliou. daara première daara sëñ Chouaib. Mm. sëñ Chouaib mooy mm-hmm. bi ah, ci daara sëñ Saliou. Mm-hmm. la àggale samay xam-xamu diine. Mm-hmm. Euh, sëñ Saliou mooy sama moo jur sama waajuru jigéen moo tax euh, bañ fa jógee bañ àggale sama jàng dañoo chargé ñu war a euh, ànd ak moom liggéey ba ci jàngale ak yar. ndax ginnaaw bi nga jàngee alxuraan am na yeneen xam-xam yoo si teg. waaw mooy xam-xamu diine yi. boobu mm-hmm. maa ko jàng ci daara sëñ Saliou mm-hmm. ci sëñ Saliou xam nga foofu daara yu rëy la yoo xamee ne. waaw ñu bari dañuy jàpp ne rek liggéeyu tool yee lañ fay def fekk te. borom xam-xam yi gën a mag ñaari ci xam-xamu diine yi. foofu yéen yan yan xam-xam ngeen fay jàng. si diine yi euh, ci jiitu mooy al ulum shar'iyya mooy xam yi diine yi. Mhm. ak làkku arab euh, boo bëggee man lim yëpp yooyu yëpp yow yi nga jàng yëpp foofu nga ko jàngee. foofu la nga jàngee foofu fi ay Égypte wala ay Médine wala yooyu yëpp. yu ma ciy tamit booba fekk na sama njàng man dama doon fi damay tukki rek ngir jàngkoon euh, jëflanteeg nit ñi rek ay borom xam-xam di jàkkaar di jëflanteeg borom xam-xam waaye eh, daara sañ Saalu yooyu eh, kenn du fa génn yor li jaasa wala waaw waaye lu gën li jaasa yaakaar naa moom mooy xam-xam mhm. ndax eh, ni nga ko waxee woon démb rek ba bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilma mhm. loolu gën a wóor mooy mhm. ay kayit am na ci borom xam-xam yi kayit kayit la rek moo tax li gën a am solo te yow yaakaar naa ñi ngi la formé Amérique mooy compétence xam-xam bi bu nit ki nekk ci moom moo gën a am solo. loo xam ni surtout dafay indi moom waaw kayit moom kayit la loo xam ne ci euh, sax ñu ma joxe mhm. dafa am ku naan euh, ci Andalus ci Espagne ba fa lislaam nekkee borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Ibn Hazm. Mhm. dem day ab penseur bu mag bind lu bare bare amoon ay coow ci nit ñi ci gis-gisam ci téereem yi ñu lakk téere ya bañ ko lakkee mu def benn. bayit yu neex hmm. wane ne fa in taxrixu alxirtaasa laa taxrixu alladi tadammanaha alxirtaasu bal huwa fi sadri hmm. ajuulu bihi xaysu staqalla rakaibi wa anzilu in wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri nee na xam bi bu lakk leen téere yi bu leen neexee waaye li ci téere mi ngi sama dënn hmm. fu ma jëm yóbbaale ko bu ma euh, tukki àndaale ko bu may dee ñu dencaale ko mooy sama biir biir bàmmeel kon loolu mooy li gën a am solo ci foofu sax ma maa ibil bunt ma xam naa naa bàyyi sax ba nga ñëwaat mm-hmm. daara ak valeur yi mu am ak li mu indil Sénégal yaakaar naa ne ba léegi joxaguñ ko ak xam ci biir réew non loolu moom lu wér la ndax bëggoon naa euh, non loolu lu wér la euh, ndax euh, ñun daara démb rek sëñ Abdou Lahad sa sànq mi ngi fi ñëw ñu si ñu siy waxtaan Maroc dafa am loo xam ne ñoom dañ ko réussir te ñun dañ fi échec waaw mooy maanaam ñoom dañ jël xam-xamu daara xam-xam ba fa nekkoon balaa tubaab yi di ñëw mhm. ak xam-xam bi fi bi tubaab yi indi ñu xool ñoom nan lañ leen di lëkkalee ngir ñaar yëpp ñu mën jël lan moo si li ñun nag euh, xam-xamu daara moo fi jiitu woon tubaab yi mhm. tubaab yi bi ñu fi ñëwee bàyyi fi seen xam-xam mhm. ñun taara ñu maanaam daal euh, xaw ko ñu sàgganee ko daal te loolu moom pertange bu mag la euh, mais sëñ bi yow yow Sénégal lan nga jàpp ne que suñu réew mi moom moo ko mun defar. waaw loolu daanaka damay wéyale ci li ma doon wax léegi rek mooy te wax nga ko mooy euh, tubaab yi dañoo fekkoon ñu am nation boo xamee ne li nation yëpp am am nañ ko am ay référence am ay gëm-gëm am ay aada am ay ay pas am tamit ay penseurs yu am ay xalaat yu xóot. ci vision bu globale ci nit ak mission ci kaw suuf ak nan la fi war a nekkee ak nan lay ëllëgam bu gën a xóot fopp sax bi tubaab bi am kon philosophie yi tubaab yi am yépp lu ko raw ñun suñ mag ñi amoon nañ ko euh, nekkoon tamit fexe di dund dund ci condition yu baax euh, euh, defar nit am jàmm ah, nit am jàmm tey am jàmm ëllëg loolu lañu nekk woon tubaab bi ñëw nag bouleversé li amoon système boobu bépp mu changé ko euh, am vision boo xam ne dafa bëgg a euh, tëggaat doomu aadama tëgg yàlla ni mu la bindee doy na sëkk fala yuxayyiruna xalqallaahi ñoom loolu la mooy seen kii mooy changé nit euh, pas-pas yi mu amoon ñu dindi ko xalaat yi mu amoon ñu ñu dindi ko tàmbali ko ci seen bopp liñ yilif lépp ñu def ko noonu ñëw ci suñ réew yi lépp liñ laloon li nga xam ne moo ñuy mën a tax ñu demal suñu bopp ndax bala ngaa mën a demal sa bopp da doon ba noppi. nekk doon nekk. Mm-hmm. dañ ne wolof dafa ne euh, naam bala da nga fay euh, nu ko waxee sax. bala nga naan ne ne naam ne fa. Mm. kon ñun dañ fa nekkagul ndax tubaab bi moo fa effacé sunu ne. Mm. jéem faa def ak nekkam. ndax loolu mooy colonisation. loolu mooy colonisation mooy damay ñëw wan la ni yow doo dara ma def la. sama bopp man ba pare jël sa alal mhm. loolu mooy colonisation fan yi benn bindikat bu mu wax ne mu ne euh, colonisation ay ay ay ay xaaj la bu njëkk bi daa bëggoon a marché yi mhm. mu yilif ko te loolu day laaj euh, armement arme bu rëy ak xeex bu metti mhm. loolu nag comme da koy coûter cher léegi li gën a gra li gën a gaaw mooy coloniser xel yi waaw boobaa au lieu ngay coloniser suuf si euh, kiis dëkk ci suuf si boo ko boo ko te loolu mooy mondialisation ab pàcc la ci colonisation rek benn euh, logique lay doxeen mooy euh, Occident ñëw bëgg moom ñu not ñu doonatuñ diggante nit ak nit waaye nit ak ay jumtukaay la hmm. ñun ay jumtukaay la jàppewuñu nit moo tax li ñuy lépp luy luy tax ñu doon nit am identité am xalaat am am gis-gis yooyu da ko li feeg loolu ñu ngi koy am danañ mën a tollook moom wala ñu raw moo tax loolu ci li muy njëkk a liggéey mooy dindi loolu ci suñu bopp ci suñu bopp. ñu bañ a doon nit. bañ a nii ci xalaat. Mhm. nii doon sa bopp. nii ci pas-pas nii ci ay jikko nii ci xalaat doxalin loolu nag boo ko dindee ci culture doomu aadama nit ab ab machine nga am wala jumtukaay loolu nag tubaab bi yaakaar naa réussir na ko yaakaar naa tey bu ñu demee ba tey sa concept bi ñëwaat di jéem Sénégal ci kanam la tax. la ñu tardeel ba ñu koy wax loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy dañ faa nekkut dañu dañoo amut. Hmm. ndab la loo xamee ne amul lu nekk ci biir. Hmm. la ca nekk ci biir logiciel lu tubaab la xalaatu tubaab bëgg-bëgg tubaab boo xamee ne programme wuñu ngir ñu tolloog sax tubaab. Hmm. waaye dañ ñoo programme pour ñu doon ay toppaa ngay tubaab ak i seeni jaam ak seeni ñu leen di liggéeyal wala marché boo xamee ne Afrique goo xam ne daal ñii fi ne dañ leen formé bañ mën a jëri liggéeyal suuf si jox yi ñu jëriñoo di ko ŋacc di ko jariñoo rek waaye ñun duñu daan mën a jariñoo ma ko nag hmm. gis nañ ne mag ñi fi nekkoon ñoom continuité lañ woon ca li fi jiitu woon culture euh, bu bu bu Afrique bu yàgg ba continuité lañ ci lifi fi yi bàyyi woon yonent yi dale ko ca aadama ba ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu kon ku am héritage bu toll noonu hmm. muy li gën ca yàlla gën ci doomu aadama ndax booy xool Afrique civilisation yi gën a yàgg ci humanité fi la nekk. waaw ah, lu wér si kaw si Afrique la njëkk a lu wér. kon kay moom mosuñoo tardé waaye li ñu tardel mooy biñ demee ba keneen jóge fële ca biti ñëw dindi. li nekkoon ci suñu bopp yi def ci nag loo xamee ne bu ci defoon sax la nekk ca moom mu baax. waaye def ci lu yées. imaginel xool Corée. Euh. ay Corée ay ay ay mas ngaa gis. ay Chine ay Chine ay réew yooyu ci penku. Malaisie waaw ba tey ci seen bo ba tey liñ leen yilifoon lépp te yowul bañ delluwaatee ñoom doonaat seen bopp dem nañ ba ba tolluwaat ak euh, tubaab yi tey Samsung. li muy defar. Ah. ak ay euh, Chine. ñoom ñooy numéro un si àdduna bi Samsung fu mu toll nii si ah. wàllum téléphone. Ah. li ko waral nag mooy ndab la la ca ndab la. nu ñu koy waxee ci wolof euh, muy nit ki. Hmm. du xottu dongo xottu woo xamee ne la ca biir nitu tubaab la. wala hmm. bëgg-bëgg tubaab. Hmm. waaye day ndab loo xam ne boppam la doon. nit comme tubaab fees dell mooy tax nag muy mën a compétir ak tubaab dem ba mën koo yilif euh, euh, waaye du doon ko koy topp ñun nag malheureusement. waaw fii kenn ku jaa ngi sew làkk amut mas ngaa gis ci àdduna kuy. tekkee réew mu tekkee ci jàng làkku ba moro làkk jàmbur làkku jàmbur xaalisu jàmbur mënoo see tekki tey Corée boo fa demee te nee nañ ñoo Sénégal ñoo tolloon ba ñuy ay at yi mutu fanweeri at ci gannaaw waaw tey xool li ñu rawee mënuñu mënee suñu leen ndax dañoo jàng ci seen làkk dañoo ja am seen i aada am seen diine ak seen i xalaatin doon seen bopp tax ñu dem am seen xaalis am seen xaalis bopp mooy doon sa bopp rek sa bopp mooy sa bopp moom ci lépp rek nii ca bopp ba ci ca ci sa loxo ci sa lépp waaye nag bu fekkee ne sa bopp bii du du yow keneen a fa ne ah, bu jéem a jàppe ne yow danga mën a tolloo kenn ah loolu mooy suñu problème waaw loolu loolu moom ànd si ndax moo tax euh, yaakaar naa ne mm-hmm. beneen njuumte bi gën a rëy boo xamee ne bu ñuy tax bu Sénégal mënut a dem ci kanam li feeg lijjanti wuñ lool mm. mooy héritage bii fi mag ñi bay te mu xóot lool am lu ne doon or doon doon lépp a ngi ci biir te ba léegi sunu nguur yi texuñ sax benn institut boo xamee ne dana jéem a gëstu ci mag ñi liñ fi bàyyi. Ah, waxumaa di ko jàngal nit ñi nag. ah loolu dëgg la ban réew ci kaw suuf ba ci ko Tombouctou da nga gis ne état hmm. Mali dana jéem sax lu ko jéem a gëstu. dëgg la ah? la boo demee Mauritanie da ngay da ngay waaru. Hmm. ñoom dañoo fexe ba nañ tabaxee réew ma dëppook seen i aada. sëñ daara ya ak ak ak kilifa yi ñoo ñoo yor réew ma pourquoi pas fii ci Sénégal hmm. ñu ñëw tubaab defar ay taalibeem ay marionnette am tëgg leen ci nam ko bëggee jël réew mi jox leen dem yoonam bàyyi fi daan ñoom ñuy doxal ñun ñu exclure ñu génn ñu ci luy doxal réew mi du ñu ci laaj du ñu ci consulter du ñu wax mukk ba sax ni ngay yare sa doom ci biir kër gi wala ci mbedd mi yow suñu cee wax tubaab moo ko sañ a wax moo ko mën a sañ a définir ca France ñëw jox ko ay taalibeem ñu koy doxal. Hmm. ndax loolu xel na réew mën naa doxee noonu ci kaw suuf. réew moo xamee bu doon juróomi tànk la te fukki tànk 90 euh, pour cent yi mi ngi sukkandiku ci ci nit yi diine yi benn bi mi ngi sukkandiku ci nit tubaab yi ñu bëgg nag tubaab bi doxal doxal doxal doxal réew moom ndax réew moomu dana dox. ah euh, mënu dox te fi mu toll nii. Euh, da nga wax euh, lu am solo mooy ni ñun war nañ bàyyi xel ne que mënuñu dem lu nii dañu nekk. Mhm. suñu bopp te loolu lu wér la koo xam ne mi ngi nelaw mënagul dox. Mhm. mu yeewu te ki lay noot moom mu ne fi wala mu bañ fi ne euh, mënees naa teg programme mënees naa teg système boo xam ni ni mu bugg nga doxee rek moom ngay doxee bés bu ne dañ koy wax fii ne juñ wax nga ko léegi làkku jàmbur mais surtout. xaalisu jàmbur yow mu amul tey réew muy dem ci àdduna boo xam ni xaalisu jàmbur la yor ndax tey tubaab yi ñun bu ñu joxee CFA boobu ba léegi ñun moom lañ yor ñoom sax bàyyi nañ ko xam nga ñoom bàyyi nañ franc. waaw ah, ah. ñoom ñu ngi ci euro <laughs> mais ñoom ñun franc boobu tubaab yi ban nañ ko mais ñun ba léegi ñu ngi ci ngoy si te tubaab yi dañu naan franc boobu xaalis boobu pour mu mën a baax il faut ñun ñu am compte boo xam ne sa seen banque ñoom suñuy koppar ñoom ñoo koy. garantir ñun ñuy jël xaalis di leen jox léegi xaalis boobu su ko defee ñoom ñu liggéeyaat si wala ñu lebalaat ñu ko su ko defee boobu ba léegi te tubaab yi banque centrale yi ñoom dañ fay toog dañ fa am place ci conseil d'administration te comme këyit yi dañu ne benn décision pour ñu jël ko il faut ñëpp dëppoo si kon tubaab yi bu ñu na bu ñu nangu moom mbir mi mbir mi du dem daal mooy kon euh, sëñ da nga da nga wax vraiment lu am solo defe naa mooy euh, ñun war nañ bàyyi xel ne que dañu war a dellu si waat si suñu bopp xam ñun ñooy ñam xool yàlla lim ñu baaxee loolu ñu xool nan lañ koy valoriser ndax ndax yàlla léeg mun na la bañ a jox dara sax da dem réew mu mel ni Israël ñoo maanaam amuñu ndox mais xalaat nañ ay xalaatin bay génn ndox kon yàlla bu la joxee dara yow loolu bu ko xeeb xoolal rek yow ni que jox na la li ëpp solo mooy xel xel moomu nag jëfandikoo ko si xam yow yaay kan gëm sa bopp fonk sa bopp ba pare liñ la jox nag nga gëm ko fonk ko doyloo ko nga gis léegi yàlla fekk la si sëñ bi ban yow de <laughs> gis nga suñu waxtaan wi de tey moom am na solo loolu ndax euh, euh, sëñ Chouaib Kébé mi mhm. euh, ni mu ko junjee moom sëñ Saaliwu mooy maamam waaw sëñ moo jur yaayam mhm. Euh, suñu Saliou Mbacke yàlla na ko yàlla dolli leer kenn doo ko ku ko wax rek mhm, euh, dëgg dëgg xel yëpp dem si lu baax lu mhm. sell mhm. ak euh, lu lu jaar yoon su àdduna bëri woon ay sëñ Saliou ah tey mbir mi dina baax loolu sëñ bi yow ñaata at a ngi yaa ngi si ay rajo ak télé depuis 2002 mooy laa fi nekk loolu am na fukki at ñaar boobu ndaw nga woon de bi ngay door waaw boo booy laa woon hmm. mais xam nga rek ci loo yàgg rek. expérience bi mais est-ce que rajo da ko jàng wala yow da nga ñëw rek. bon yàlla def na Sénégal bon ñuy jàngee rajo euh, bon gisaguma ko fi quoi ba ma jamono yo ma ciy dugg parce que dama jóge woon armée. Hmm. je suis militaire. ñëw di taxaalu nekk ci société de gardiennage yi ñu may fay ay salaires yoo xam ni trente mille cinq cent la woon. Oh. après bi ma demee ba xam ne ñii dañ may exploité may jël sama trente mille cinq cent yi ñu mujjee fay. may dem piir di ci jënd ñebbe ak bisaab bu xonq di ko jaay si fii ci marché yi. est-ce que amoo si woon lépp trente mille cinq cent. si foofu booboo gën a dox. parce que booy ba ma bi may bàyyi jaay boobu booy bi ma ci dugaloon ma ngay Espagne fi mu nii ma ngay tabax te tabaxuma. ma loolu. voilà donc sa njaay ma njaay ma. parce que man bi may bàyyi dafa am benn booy boo xam dama ko dama ko woon yoon bi ni ko bàyyil naan ataaya bi ngay def fii ci dëkk bi da ngay dem piir jënd kilo ñebbe fukki dërëm ñëw jaayee ko cent vingt cinq Ndakaaru Mm-hmm. jënd potu potu potu bisaabu Vimto ñaar fukk ñëw jaayee ko deux cent cinquante ndakaaru mm-hmm. su guddi jotee sooy ataaya képp koo xam ne du liggéey bu ko xeelil ku nanguwutu liggéey bu ko xeelil kaas <laughs> bu ko xiimal di jënd sa yére yi bees di ko sol mm. te bul abal kenn dara waaye euh, gis nga ban moo ndooy waa man bés bu ne xam nga lan laay wax pour dëggal li ngay wax nii mm. chomage mhm. c'est pas normal du yoon du yoon ku am fulla fayda jom ngor fit mhm. waroo chômer non non non xoolal li nga wax nii rek c'est que nguur bu gars yi dañuy xaar nguur te liggéey mën nga ko créer sa bopp mais loolooy wéet mën nga créer mille cinq cent cinq cent pour photon bi la nga jël cinq cent yi di ci paas fexe ba egg pire soo eggee du pire rek ah même bala nga avant nga egg pire village nekk foofu euh, moom Ndoye Bane yow da ngay def lu am solo mooy léeg guddi gi da ngay dem xool nit ñi nit ñuy dundee Euh, léeg-léeg ñu gis ñuy dégg ay reportage yu am solo si yoo xam ne dëgg-dëgg dañu la war a delloo njukkal. ndax foo xam ni kenn du fa dem yow da fay dem. te loolu moom dañ ko war a te ñooñu si si réew mi lañ bokk. Ah, dañu war war ñu leen beddi. Mhm. Euh, mais yow yow maanaam ban jàngat nga am si ñun suñu réew mi li ko tardeel. bon li ko tardeel mooy ñàkk wax dëgg Sénégal duñu wax dëgg dañ ma jéggal ci ñi ma ko war a wax fenn bokk na ci liy tardeel réew mi. da ngay toog ak kilifa mu lay wax loo xam ne yow leer na leen ni kii lim lay wax du dëgg politiciens yi dem ci ab dëkk wax ak waa dëkk ba loo xam ne ñoom leer na leen ni lii ñuy wax duñ ko def nga gis kilifa goo xam ne soi-disant dafa am ay taalibe toog di wax loo xam ni di sosal yonent bi par exemple yonent bi nee na lee na wala Serigne Saliou nee na lee lii wala Serigne Touba nee woon lii wala maam alaaj Hadj Waane Malick nee na woon lii te waxu ko. loolu am na waaw am na ñuy toog kay di leen di leen wax yoo xam ne waxuñu ko non non du ma wax ko yooyu doo nekk fii di tudd mm, ñeme woo wax tur wi non non du ñàkk man awma lu may ragal mais c'est parce que non non xam nga ñooñu ñooñu di wax yooyu souvent dañuy dañuy dañuy woote wooyee seen bopp sëriñ peut-être wala ñuy wooyee seen bopp euh, politicien wala ñuy wooyee seen bopp li ma gën a bañ mooy ñi nekk ci rajo yi te duñ wax dëgg rajo ak dafa garaaw xale yëpp di ko seetaan ngay toog doo wax dëgg kan moo ne si rajo tele télé du wax dëgg soo gisee ñàkk wax dëgg gi mooy euh, di dañ leen di wan loo xam ni dañ naan dañ nit ñi dañu yaakaar ni àdduna lii la hmm. Sénégal nii la war a doxee nit ñi dañoo war a fecc nit ñi dañoo war a way nit ñi dañoo war a dem ci soirée di maye xaalis xam nga loolu loolu du dëgg hmm. loolu mooy mooy fen yi kon politiciens yi ñu gisoon ñoom kii joxe xaalis kii yooyu non non loolu baaxul baaxul baaxul loolu baaxul ci ci ci ci aw askan te rajo yeeg télé yi ñu bëri dañuy jooy ne musique beeg rajo kii fecc beeg yooyu animation musicale man dama koy def waaye léegi nga dégg bàyyi naa ko. parce que hmm. amul njariñ. Hmm. amul benn njariñ. teg musique maa ngi koy may Tunkara maa ngi koy may loolu ban njariñ laa am ban amul njariñ. Ah, loolu de moom ñoom kii moom lañu ñoom Pape jàlloo Diallo ñoom Boubacar Diallo ñooñu si si la ñuy yëngu. loolu dafa amoon ay jamono yoo xam ni looloo xewoon mais fi mu nii ça fait dafay plus de 30 ans loolu rek la nit ñi di def mais actuellement 2014 lañ nekk dañu war a indi leneen. yow léegi nga bàyyi animation musicale. non di film yi nii deux jours laa koy def lundi mardi. tey mardi bi dama koy tëbal tuddee ko créer benn émission bu tudd waxi mag du fanaan àll. léegi nag léegi da nga ko fas yéene bàyyi nga. dama koy bàyyi parce que gisuma ci njariñ amul njariñ. musique yi ngay teg gars yi am nañ ko seen biir oto am ko seen kër sa voix bi dong lañ amul. Hmm. moo tax gars yi di wax ci rajo yi di rouler voix. amul njariñ ak kii bi bu wayee nga wayaat ko voilà loolu amul njariñ et puis sax waykat yi dañ fee wayatul lu am njariñ ñoom it dañuy wayaan rek waykat yi dañuy wayaan suba ba ngoon animateur bi ñëw teg ko de wayaan suba ba ngoon mais bu dëkk boobu du dem hmm? waykat bi day wayaan kaset bi jeex jox ko animateur bi animateur bi day wayaan ba morceau bi jeex léegi nag dëkk boobu fu ñu jëm ñun. wayaan sur wayaan la. voilà léegi nag euh, loolu la beneen bi leneen li ko tardeel beneen bi mooy kër yi biir kër yi. Hmm. góor ñi defatul la leen war ci biir kër yi. Hmm. jigéen ñi respecté ñu ñu bari respecté ñu seen jëkkër yi. tas gi sëy yi tas nii. Hmm. ni mu baree soo demee tribunal la fay tas ci ay sëy kenn xamul mu tool loolu lañ fay gën a àtte de. léegi nag tas sëy bu tas. lo sëy yi tas yi mooy waral prostitution bi di bari ci dëkk bi. ñii di ko def ci biir kër yi ñii di ko def ci mbedd mi. yow xa jigéen ñi ngay gis ñuy jaay seen bopp ñu si bari dañuy. xaaj bi yëpp dix yoo jël neuf yi dañoo sëy ba tas. Hmm. ñii seen papa dee bàyyi fi seen yaay ak njaboot gu bari. amuñu lu ñuy def jigéen ñi xamuñu ñuy def amuñu lu ñu lekk am lu ñu naan ñuy dem di jaay seen bopp pour dimbali seen yaay. ñii góor gu bon moo takkoon seen yaay fase seen yaay bàyyi leen ak ay ñetti doom wala juróomi doom su fekkee taaw ba jigéen la dem ba am vingt ans. day génn mbedd mi di jaay boppam pour dimbali yaayam am na ay jigéen yu bari yoo xam ñooy fay seen courant kër. Mhm. ñoo fay ndox ma ñooy joxe dépense. si ni ñuy jaayee seen bopp. ni ñuy jaayee seen bopp parce que xam nga ñun suñu société yi boo xoolee euh, ñun dañu taxawul dañu taxawul si wàllum taxawu ñi nga xam ni dañu am aajo. Mhm. lu mel ni tey way laago yi. Mhm. ñun léeg amuñu yenn dispositif yoo xam ni moom lañu ñuy créer pour ne ñi nga xam ni de ñoom dañuy dañu am laago. liggéey yi ñoom lañ ko jagleel. Mhm. wala ñi nga xam ni tey ñoom euh, maanaam comme ñi ngay wax nii am na jigéen yoo xam bu ñu tolloo fenn fii. Mhm. am na benn accompagnement benn gunge bu ñu leen defar ngir ñu bañ a wadd. Mhm. si musiba yi ngay wax. waaye loolu loolu su loolu soo suñ ko créé woon fii Sénégal kañ ko dénk muy directeur bàyyi lekk xaalis ba su ko président bi neel jox de ku ku ci nar jaay boppam woo ko jox ko liggéey jox ko 500000 francs 200000 la koy jox. yow yow wóolu woo ñu wóolu woo Sénégalais fu mu toll nii. noonu non non gars yi ku soo leen dénkee kees dañ koy këpp dégg nga coow li ci dëkk bi dañuy këpp kees gi xam nga léegi dëgg ñu di jaay seen bopp noonu Sénégal nañ bàyyi gis jigéen ci tali wala jigéen bu loué appartement am ñu ni ma ngay ku góor ñi de ñooy yàq ñooy wër di yàq deru jigéen ñi góor ñi te ñoom góor ñi ñoo fay dem waaw parce que jigéen ñoon ji jaay seen bopp su kenn jëndul woon ñu bàyyi luuma boo dem jigéen ñi suñ ubbi suñ ubbi woon di jaay te kenn jëndul prostitution bi jeex mais kii jënd ak kii jaay ñoom ñaan ñëpp ay ay. français dañu commencé ne léegi góor bu demee di uti jigéen. waaw pour euh, maanaam di ko fay. waaw léegi loolu dañ ko commencé buggu def délit foofu. France mais délit la war a doon parce que looloo yokk feebar bi. ñu et puis et puis nañ arrêté di jigéen ñi nañ bàyyi di romb nekk seen oto wala nekk seen taxi romb ay jigéen bu taxaw ci tali bi ñu naan xoolal euh, génn katu guddi bee. Hmm. di ko wax te moom ci boppam ma nga kër ndayam a kër baayam julli du ko raw mooy toggal yaay mooy toggal lépp ci immeuble bi quatre étages bi chaque jour am na fa ñaari far ci immeuble bi su ñëwee seete Matar suba mu seete seeti Njaga kooku moo kii jaay boppam ci tani bi mbaraan ak càggatu benn la lan c'est la même chose amul différence kii mbaraan ak kii càggatu ñoo bokk ndey ak baay amul différence kee day nëbb boppam day nëbb bosom kii nëbbutuwul te kii kii nëbbutuwul sax moo gën a wér kii nëbbutu parce que kii nëbbu kii kii nekk ci tali bi. ko ñoo xale jigéen yi mbaraan loo wax. mais ay caga lañu mbaraan moom ku koy def moom jàppal ni ci nga bokk moom. ah suñ yow li nga xam ne ah, loolu la yi lan mooy mbaraan am douze far. soo xëyee su ba gàddu sab saak 18 heures su jotee na nga ñëw place de l'Indépendance ni ngay gisee nit ñi di ñibbi noonu la ñeneen di dugg see ci biir bureau yi la ko gars yi di c'est loolu baaxul réew mi soo gisee demul. Hmm. gars yi dañuy moy ci biir bureau yi. biir bureau kenn waru si moy. fa ngay liggéeyee teraan nga war a génn noo koy moye keroog de benn kilifa nee na moom euh, président Senghor moom nee woon na ba mu nekkee pale moom foofu mus fa mooy moom biir pale ba waaw mais mais suñ fa mooyul ci biir bureau yi dañ fay mooy loolu moom li may wax nii gars yi seetaan ñoo gën a xam ah yow nag gisoo ko nag sëñ bi non non ah. man da man gis nga ça fait plus ça fait dix ans ma ah. ci liggéey bi waaw waaye gisoo nag biir bureau bu nit ñi di mooyee nag non dangay dem ci bureau yi yenn saa yi fekk fa ay lal lal waaw am na façon am na façon canapé yoo xam da ngay xëcc rek mu doon lal léegi. lu ñu si def ah mais lu ñu def lal lu ñu fay def. Tounkara booy yow tam xam nga. moom ah, xanaa patron bi léeg-léeg mu sieste. wala yooyu maanaam sonn wala dalloog yooyu. non non foofu ba gi nga dañ koo jël. non man nag lu ñu gisul nag moom maanaam loo xam ne amul kii moom moom dañ fi maanu. nga tamit loolu tam dafa doy waar non lii ma la wax nii waxtaanal ak xale yu jigéen yi Tunkara doo xoolal xale yu jigéen yi booy sikaab nga booy town nga xam nga bu baax li ma la <laughs> wax man kenn loolu xaw ma ko ndax man gis ko te man lu ma gisul moom du ma si ma du ma sori da nga fexe ut benn mbaraankat rek nga nga jël ko micro caché nga interviewé ko bon euh, léegi yow euh, jàpp nga ni kon suñu réew mi su su demul mooy gi suñ ko wàññiwul du dem fépp la ñuy moyen bâtiment yi parewul yeeg bâtiment yi pare yeeg biir oto yeeg euh, manifestation yi ngay gis mbooloo yee fépp la ñuy moyen moo tax dëkk bi du dem fu mu jëm fan. bon euh, sànq wax nga tamit nekk euh, yow waa Pire. waaw nga bokk Pire waaw. Euh, moom man su ma demee si dëkk yooyu sama xol dafay metti du ma ko nëbb. Mhm. keroog dama dem Mbadakhoune. mais nit ñi ni ñuy dundee dafa mel ni sunu maamaati maam mhm. néegu ñax nii vraiment amul benn jumtuwaay mu doy waar. fu mel ni ay pire yooyu man fi ñu toll nii yéen seen dëkk yooyu waroon na weesu fii ndax dafa mel ni 1960 ba léegi. Mm-hmm. mbir yi daa taxaw. taxaw rek. loolu lu tax. quatre pneus yëpp crevé taxaw la def pire 72 villages ko wër. Mm-hmm. communauté rurale la ba bi ñu mujj gi bi ñu ko voté neen dañ koy def commune. Ah. d'accord loolu baax na mais pire soo fa demee. suñu maam ya dee woon depuis vingt ans suñu dekki woon suñu wàccee ca garage ba du ñu réer. du ñu réer ñu rek dañu jubali directement ñibbi. wallaay donc loolu mooy dëkk ba avancé wul. président communauté rurale ba fa ne sama maam la. Hmm. direct waaw mais man dama ko fa bëgg a jëlee toog nee naa ko maam jógal ma toog. wax nga ko sama maam direct waaw. kon yow da ngaa bëgg da bëgg nekk foofu président. dama bëgg a nekk maire foofu. parce que Sidi Ba na fa nekk Serigne Boub bi nekk yore basket bi. ñoo fa nekk ñoo ëpp xaalis fop dara aw ko mais dinaa dem élection gagné leen toog fa parce que soo demee lycée Pire ba. Hmm. sayam la woon ñu transformé ko def ko lycée. ah moom boo fa demee moom. booy ci biti la ñuy jàngee. Ah, amul salle de classe yu doy dara lu baax amu fa. man booy ba leen nañ ma ci ma dem ñaari yoon ci ministre bi Thiam Serigne Mbaye Thiam wax hmm. naa ko ko. ba mu ne ma incha allah dina jéem a wax waa Tivaouane yaa bu Tivaouane pour ñu. mais Ndoye Bane bul fàtte ni ko politiciens yi nag dañu verrouiller affaire bi de affaire u maire yi. Mm. ñoom defee nañ ko noo xam ni soo amul parti bu dëgër. Mm-hmm. bu la jàppale. waaw nga dem toog am ay conseillers yu doy pour ñu voter la doo mun a nekk maire de. incha allah loolu lépp ñu ngi ciy liggéey. Mm. waaw ñu ban parti moo la nar a. bon bi gi ma demee Pire gis naa ni PS sama ñoom maama fa nekk. Mm. PDS sama ñoom maama fa nekk. bu dafa bëri group xaw ma ku ko jiite APR pire wax dëgg yàlla parce que y a plus de 18 groupes ku nekk naan booy boo dajal mu ne maa jiite APR fii <laughs> ma xool nit fii nii am na amul am na ay parti yu fi amul bu mel ni bokk gis-gis hmm. Pape Diop ma dugg ci moom kon fi mu toll yaa ngi ak Pape Diop maa ngi Pape Diop fi mu nii ci ci ci ci ci partem lay demee pour yëpp mais nag sama politique man biir Pire la yam su ma génnee Pire à un kilomètre de Pire bàyyi naa politique mais mais gox goxaat yi waaw am benn problème bu si am hmm. mooy affaire euh, développement local. Mm-hmm. affaire xam-xam la. Mm-hmm. du yëfu politique. Mm-hmm. ñun dañuy jël ay politiciens def leen ay maire ay président communauté rurale te ñoom xamuñu dara dara dara. ca dëkk ba nañuy développé réew. nañuy développé dëkk xamuñu si dara. du loolu dañoo xamul dëkk ba ca boppam. loolu loolu dina am mais surtout développé xam-xam la munoo jël politicien bu jógee fële rek ñu def suñu list rek teg la nii nangam sangam nga nekk maire te yow jàngloo. gestion de collectivité locale jàngaloo développement local mhm. jàngaloo management mhm. jàngaloo stratégie mhm. jàngaloo organisation jàngaloo dara nga ñëw rek toog moo tax nii du dem tant que ñu ngi politiquer euh, développement local du mës a dem parce que politicien bi moom xam-xamam du defar xam-xamam mooy moom ak parteem mu xalaat yaa ngi dégg euh, sëñ Chouaib yow tey suñu réew mi ah, may ma am ñu hmm. xam nga seen mission yi dama koy déglu léeg-léegi. Hmm. te gis naa am solo waaye léegi dama ci seetlu benn point benn tomb mooy dafa mel ni ngeen a faw kës on euh, kii ci mbóot yi. Hmm. yoo xam ne kenn waru ko sulli day mel ne. waaw ñu sulli di càgg nag damay critiquer dara damay. waaw waaw la sax noonu la te ci l'islam ndax comme nitu diine la may wax ci in l'islam dafa ne inna alladina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axira yàlla dafa mel ne dafa bëggut euh, lu bon xam na ne am na waaye bëggut koo tudd hmm. ndax bu ñu ko dee tudd est-ce que du ñemeloo nit ñi ñu ñeme ko mel ne mujj société bi dafa ñu banaliser banaliser koo kay ah mujj hmm, sëñ bi da ngeen di banaliser lu bon wala non non non c'est bëgg parce que dañoo bëgg li nga xam ne nit ñi yëgul may ma leeral tuuti rek yow sax la àndal waaye damay bañ tamit nag. Mhm. télé ndax damaa gisee léegi comme loolu bi ngeen ko tàmbalee yeneen télé tàmbale ko. Mhm. est-ce que bu ci kanam yi tuuti du indi loo xamee ne société bi transformé wu. Mhm. mooy toujours yu mbuut yoo xamee ne exception la ci ci société bi. daanaka hmm. amul ay benn pour cent la ci ci dëkk bi. ah te dañ koo def làq ko ku def ba làq nag. après gars ñi dem sulli mbóot bi génne ko fesal ko def ko tamit benn phénomène bu mel ne phénomène social boo xam ne réew mépp ci la dund hmm. te nag en réalité ay benn beneen koy def yooyu mooy ay wàllum tës ak waaw yooyu daal yooyu noonu waaw vraiment génne ay mbóot sëñ euh, animateurs yi xaw a bàyyi xel lool ne <laughs> ñun ñii daaree sëñ daaree ak ñun defarkat yi hmm. am na loo xam ne boo muy tudd dana yàqaat suñu liggéey bu fekkee ne ñëw euh, yéen yéen ñaan yéen la war a jàppalanteel ci lépp ndax yéen suñu bokk hmm. yéen ah, yéen ñu ay ay éducateur ngeen kon comme ñun ngeen euh, du pour yow may wax de ñëpp tax may wax rek ñi ñi mhm. yenn mbóot yi est-ce que duñ ko bàyyi mu nelaw mhm. ak it ñu wut ay ah, suñ mbóot mi nag buñ ko xolloon mbaa duñ dees na koo mën waaye fi may waxee rek mooy buñ demee ba xolli ko ba ñëpp réew mi yëpp far doon yi mbóot nag mhm. est-ce que duñ xool nuñ ko traité noo xamee ne te ñu bañ a xool rek euh, bañ bañ idée sow bis rek bañ ñoo yóbbu ba. sensationnel bi noonu waaw ak ay scoop ak yooyu comme li wax xam na dëgg tey ji su ma nee ci rajo bi jigéen ñu ci bari maire yéen jigéen ñu ci bari seen doom yi dañuy tux yàmbaa dee leen xool seen saag suñ suñu jógee école. Hmm. mais foofu maire yi bari dañ ci jàpp seen i doom. Hmm. te sa doom mënoon naa tux yambaa ba dof te doo ko xam. day ndooy baan mi ko wax ci rajo bi tax na ba sa doom wàccee nga di waaxu ndànk ci pet ah. ubbi saagam gis fa almet gis fa benn joint yamba wala gis fa vidéo benn paquet ci cigarette mhm. loolu alert bu may joxe Séné jigéen euh, maire yi dee leen bàyyi seen doom yi di sol pain sol côté pain yu yëpp ay góor jigéen lañu maa ko waxoon te loolu c'est vrai góor day sol tuba yu góor. wala mu eh, doon góor ñoom Waly Seck si ànd nag. non xaw ma Waly Seck xaw ma Demba Seck mais pein jigéen nga man Ndoye Bane maa wax. maa ko non moom vraiment. mais loolu soo soo demee dëkk nekk mode rek soo duggee ci bi nga tàppee genre seen genre tuba yooyu xaw nga dugg da ngay xool góor jigéen yenn Italie noonu la solo. waaw non d'accord benn maire ñëw na Walfadjri ne ma hmm. di di ma yóbbu do indi doomam bi mu indee doom ji bi doom ji taxawee dama ne kii de ab góor jigéen bu buñ ma indi la pour ma waxtaan ak moom hmm. mais booy bi du góor jigéen mais soo ko séenee da nga naan jigéen soo la wanee ginnaaw ginnaaw da nga naan jigéen mais moo tax nag yow nga war a maanu tamit parce que waaw nit mun na sol peew waaw ndax mode waaw mais xam nga góor jigéen moom jëfin la waaw nit ki mën na bañ a yegg ba si jëfin ba waaye mode bi neex ko dong. loolu day am nag mais munoo ne yow ñi koy sol ñëpp nag góor jigéen lañ loolu moom dëgg dëgg. moom c'est abusé moom bu boobu sori. nga teew ñi koy sol fii nii soo génnee góor jigéen ñi ñu jeex li ma la wax maa la ko wax. demal ci soirée yi ñoom ñëpp peew la naka la góor di solee tubay di sëgg ay affaire am di génn ci ginnaaw. waaw loolu bu kay dafa tegginewul. mais loolu yëf yi jigéen la. no jigéen sax waru ko def loolu moom tegginewul xam nga sol nga solu jigéen solu buy niroog solu jigéen sa baay dina la gis di ci bàyyi sa yaay dina ci bàyyi sa waxe ñu ay xale lañu noonu la def ba nekk ay góor jigéen sa boom su solee yëfi jigéen da nga koy woo toj nopp bi ni ko da ngay def yëfi góor góor da ngay def yëfi góor di wax comme góor mais fii dëkk bi da ngay xool ay li kenn xàmmeetul góor ñi jigéen ñi lu tax lool non man li nga wax noonu dama si ànd mais li may bañ mooy mu am généralisation abusive nit mun ngay def dara mhm. tey mun nga jël Demba Seck mii di ñu caméra sol pein ndax da koo bugg waaye loolu taxul mu doon góor jigéen. mais loolu rek laa la léegi non non dañuy moytu généralisation abusive tey ñëpp ñëpp ñëpp ñi koy sol. waaw mu ñu nekk góor jigéen loolu moom sa pas possible. loolu ñi comprendre lu ñu am na ñu koy sol ñoo xam ne xamuñu sax lii ñu sol lan la. léegi. Euh, dañu solu rek. waaw suñ choix kebe euh, léegi nag yow yow yow lan nga jàpp ne que nag moom mooy saafara bi ngir réew bi suqaliku. waaw xam naa saafara si de moom weesu wut euh, jéem a doonaat sa bopp daal te xam ne sunu mag ñi rawatina sunu magi diine yi buñ gëstu woon ci seen taarif yi yaakaar naa ne. Eh, xam-xam a ngi si de xam-xam bu bare bëree bëri bu bëree bëri. Hmm? par exemple lu mel ne Matlabul Fawzayni. Hmm. Matlabul Fawzayni ab lu masalan lépp nu nit mën a fexe ba dundam développement am ci kaw suuf gi hmm. am texe ci kaw suuf gi am àjjana ci kaw suuf gi am ko ëllëg lépp suñ bi wax na ko fi. da di forme bi mu ko waxee bokkut ak ni tubaab yi waxee forme mm. ñaan la waaye ñaan yooyu ñun ñoo ko war a mat Matlabul Chifa it noonu la ko noonu la ko defee waaw yàlla ñu ngi lay ñaan nga def maanaam mais wom waaw xam nga ñaan looy ñaan rek yow mooy sa vision mooy sa bëgg-bëgg lii nga bë moom lii la yéene réew mi kon lii mooy programme am dëgg la léegi nan nañ koy réaliser tey booy xool ci biir bi teg na ni koy réaliser mooy nu nit di doxee am booy xool sëñ euh, lu ma ne Matlabul Fawzayni mm. sëñ Tuubaa da ko teg ci yoo xam ne ci laay alxuraan mi innal ladina amanu wa amilu saalihaat tuba lahum sumaak iman wa amalu saalih ngëm ak jëf ju baax jëf ju baax hmm. mooy may nit jan na ci tuuba muy ajjana saadatu daari ni fii ci kaw suuf hmm. léegi boo demee ci biir téere bi mu détaillé la ko ndànk-ndànk nu muy defee amalu saalih ci fexe ba ndox am fa nu muy fexe amalu saalih fexe ba sécurité am fa nu muy def amalu saalih fexe ba euh, njàng am fa yooyu yëpp nga gis ko ci biir téere bi mu tegal ñu lu leer ba léegi suñu université yi kenn gëstoogu téere boobu def ci ay thèse jéem a xool gis-gisu sëñ Tuubaa ba jariñ ci réew mi waaye dem di jëli ab gis-gisu Karl Marx wala ab John Nangam wala euh, euh, Nangam. loolu non loolu moom sëñ mooy li nga doon wax rek. maanaam da ko tënk rek mooy ñun euh, man dama foog ni ñun dañu xeeb suñu bopp. loolu mooy lu démb daf fi nga toog nii Balla Mbow bu Tëngéej daf fi dëkk moom wuuda la. Mhm. sëñ bi dàll yi mu fi indi. dàllu militaire yi moom mun na ko defar dàllu sécurité yi mun na ñëw indi ko teg macha ne ma moom euh, waa intendance armée commandé lañ ko téeméeri peeru daal mais yan dàll lañ ko commandé dàll yoo xam ne tubaab yi mënuñu ko defar mooy pointure 49 52 moom moo leen defar mais ñu mel noonu lu tax ñoom duñ ñu defaral ñun suñu ay daal. tey suñu mboolemu armée yëpp. te te boo ko joxoon marché bi. léegi lan lay dundal ca ca ca gaay la ko wër nee na loolu ah? trois trois cent emploi la léegi léegi léegi xoolal loolu lépp nag ñu jël ko jox tubaab tey ñun bu dee yëre tenue policier yeeg armée bi suñu tailleur yi mun nañ ko ñaw hmm, wallaay dàllu armée bi ak police ak gendarmerie suñu uude yi mun nañ ko defar bu dee xam-xam la tey si wàllum àdduna wàllum alaaxira yàlla wàcce na fii si suufu Sénégal gi nit ñoo xam ni gëstu nañ si joxe nañ si lu leer ñett tey lan moo tax ku mel ni euh, Cheikhul Khadim euh, Serigne Touba. mais ñun duñ ko jàng suñu école yi duñ ko jàng suñu université Cheikh Sidi Hadj Malick duñ ko jàng suñu école yi duñ ko jàng suñu université Cheikh Ahmed Dem duñ ko jàng suñu école yi duñ ko jàng suñu université te ñooñu boo demee si yeneen réew yi meloon ni Cheikh Anta Diop rek boo demoon ay Amérique boo ko tuddee ñëpp dañuy jóg taxaw mais ñun fan yi li ngay wax nii rek man li ma gën a jaaxal mooy fan yi am na benn burkinabé bu doon def teesam ci Euh, Cheikh euh, Ahmed Dem moom nga wax. ak ak ak ak ak euh, Cheikh Cheikh al waaw danaan jokkoo man ci tafsir léegi ba ci burkinabé bi dem ci réewu arab di fa jàng di def ay teesam ci sunuy mag ngir jëriñoo lam indi. Mhm. pour ñun pourquoi pas ñun. tey boo demee Misra Cheikh Ahmed Dem fonk bi ñu ko fonk ndax téere yu mu bind. Mhm. Ah, tey boo demee Nigéria gis nga Cheikh El Hadj Ibrahima Niass. Mhm. gis nga fonk bi ñu ko fonk mais ñun. dafa mel ñun dañu xeeb suñu bopp ñun dañu buggul tey li nga xam ni ñun ñooy ñan dafa mel dañu ragal suñu bopp xeeb suñu bopp sëñ bi yow lan nga jàpp ne que nag moo mën a defar réew mi gis nga li ko mën a defar euh, man am na benn xalaat boo xam ne maa ngi ko doon xalaat temps yee passé gis nga ay Sonatel ay Tigo ay Expresso gis nga ni ñuy lekkee li ñuy am ci ay bénéfice hmm. mu dimaat ci ñoom créer fi ay GSMS di roppat nit ñi di lekk hmm. xaalisu nit ñi arnaque loo arnaque la sax ma ni pourquoi état bi mënul jël beneen licence jox ko sénégalais yi ñu moom pour gis nga ñi feebar hôpitaux yi koo feebare soo ko demee da ngay dee hmm. ñu bari lekkuñu lu location bi sax dimbali nañ ci temps yi côté social bi compagnie boobu di régler social rek hmm. ay bénéfice am bénéfice lépp jëm ci sociale sénégalais yëpp foofu la ñëpp abonné fa bàyyi ñee nga xam ne suñu amee seen i bénéfice ci seen bopp la yem ah <laughs> nag loolu boo ko defee nag dina doy waar parce que benn la daw de non mais eh LONASE loolu waxoon ne que ay bénéfice am surtout ah. dafay demaat pour jàppale gis nañ fu mu mujjee lu muy jàppale sport du jàppale ñi ci hôpital yi mais bokkoon na si ni ñu ko taw li taxoon ñu sanc ko mooy muy jàppale sport mhm. mais tey gis nga affaire bi est-ce que mi ngi jàppale sport tey jii compagnie boobu suñ ko suñ ko créé woon teg ko ñu ni bénéfice am yëpp ci hôpitaux yi la jëm léegi Sénégal amul fooy soo da ngay dem faju gratuitement. Hmm. Sénégalais yëpp dañuy abonné wu ca compagnie boobu. xam nga li nga wax ni euh, lu tax mu am solo mooy problème bu amee rek ay solution am na. Hmm. léegi solution yooyu dafay soxla rek nit ñi toog xalaat. Hmm. tey bu ñu woowoon Sénégalais yi. ne dañu bëgg ay xalaat pour suñu réew mi jëm kanam lu mel nii sëñ xalaat la. waaw mais loolu mais du te lool rek du loolu rek la mën a régler prison yii. du ñu génnee prison yi ci biir dëkk bi. yi ci biir dëkk bi nekk ay bomb bis bu mutinerie amoon tey ji dëkk bi toj mhm. nga jël prison yóbbu ko ginnaaw jam ñaajo ca àllu kaañ ba mhm. ut fa ay tool ah, loolu de ànd naa def ci si pomme carotte nawe ñoom ñuy bay di dundee di jaay waa dëkk bi loolu ànd naa si ñu am salaire koo xam ne tëj nañ ko ba mu génn tëj nañ ko cinq su génnee amus tuut wala mu nekk ci biir kaso bi di joxe dépense mhm. mais yooyu noonu duñ ko xalaat waaye ah, bàyyi li nga xam na solo de non mais yaa am nañ ci yu baree baree baree bare yoo xam ne hmm. surtout kaso yi camp pénal hmm. euh, rëbës fi mu nekk baaxul déedéet non rëbës moom nañ ko fay jëlee rëbës camp pénal la camp pénal kër yi fi mu ne war nañ ko ndomba mais est xam nga ni yooyu yëpp tubaab yi leen fi taxawal 1960 ba tey Sénégal tabaxul benn kaso waaw loolu léegi nee nañ kaso daal ku ko tabax yaa ciy ñu ko duggu looloo tax dañoo ragal moo tax tabaxuñu kaso de <laughs> yëfi wolof yooyu naan kaso ku ko tabax yaa ci ñi ko dugg loolu tax tabaxuñu kaso <laughs> tey suñu demee ba ca un jour dama doon dem Kédougou oh, yéeg ci hélicoptère bi tiim àll bi ma ne Sénégal li ñu dëkkul moo ëpp li ñu dëkk mais foofu mais pour pourquoi ñu nekk ndakaaru rek di xëccoo di xëccoo di xëccoo ay ay ay ay parcelles ah, te looy gën di génn Dakar àll bi gën a yaatu mën faa def ay usine ay façon liggéey ah, bu ne gars yi mën xalaat yi am nañ solo de waxal waxal eh? li mu wax idée boobu Sëñ Tuubaa ci ci Matlabul Fawzayni ak ak doxinam sax moom espace daa am nu mu ko exploité ndax xam na ni bu ñu dajaloo nii donte jëriñam ci man naa yàq moo tax gis nga mouridisme ak ak ñu daan tase di toj toj ay dëkk dëkk boo def ko ab centre ci wàllu diine waaye ci wàllu développement ci wàllu loolu dafa am solo sëñ bi yow waaw complexe war nañ koo génne ci réew mi. dañoo complexé dañoo complexé gis nga daal yi muy wax dàll yooyu jógee ngaay waaw man jàngee naa ngaay xam naa daalu ngaay yi baax a baax mm. tey ji Sénégal soo indi woon daal yi tabaski jot waa ngaay defal ay junni junni marakis indi ko Dakar waa Maroc defar junni junni Maroc euh, marakis indi ko fii ñu bàyyi fa yu Maroc yi eh, jaayi fa yu Sénégal yi jënd yu Maroc mooy li sëñ bi doon wax rek sunu bopp yi dañoo jël génne bëgg bi ñu war a bëgg sunu bopp dañoo bañante ba kenn yéeniwul sa morom avancé da ngay gis les suñu mbokku ivoiriens yi ak ñi dëkk ci sous région bi ñi ngi fi ñëw par ngoon ku bëgg Sénégalais yi ñu ngi di ku bëgg njogonal da dem ci suñu mbokk yooyu seen beñee seen akara yi ñuy defar fale Sénégalais yëpp di jënde sa biir koñ am benn nogay njaay bu fa ne di jaay beñeek akara doo ca jënd ndax da ngay bañ mu am iñaan iñaan rek soxor dañoo bañante bëggantewuñu kenn am lu baax ñun dañoo xeebante bañ bañante xool yu ñuul moo tax duñu dem lu su waay am doo ko ko loolu tax duñ dem fenn fu ñu jëm. sëñ bi yow loo jeexle ban message ngay jeexle rek euh, ñi yor nguur yi te xam ne tubaab bi moo leen formé ñu xam ne. Hmm. lim leen tegal bu ñu sukkandikoo dong réew mi du dem ndax nag essayé nañ ko yaakaar naa doo ëpp xanaa juróom fukki at a ngi nii te ah, demuñ fenn. est-ce que nag jë jaaduwut est-ce que jotagut nag ñu xoolaat ne wenn yoon rek nekku fi. Hmm. yàlla bi mu bindee nit da ci da ko mooñaale ay possibilités yu bare bari dëgg la nga lii ay ati at doxut yaa ngi gis yeneen réew yoo jugandoo loon ñoom dem nañ est-ce que du ñoom liñ la tegal moo baaxut doo jéem a xoolaat leneen. mais li ñu tegal kay nangu nañu baaxul sëñ bi. kay comme nag nangu nga ko nag déem a xoolaat nag nag li mag ñi nekk. dégg nga li mu wax lu am solo la mais bala moo loolu bala moo dañ. il faut ñu fóot jikkoy Sénégal yi ñu bàyyi saw mbedd bàyyi naan café sànni mbedd. loolu tubaab bu ko def. de mukk waaw mais ñun loolu il faut ñu dindi loolu ba pare. loolu moom mooy ñàkk nite moom mooy li ñu woon ak ustaas wax ci rajo. Hmm. moroomu ustaas woote dingat ko. Hmm. loolu li ñuy def nii li mu bëgg nii balu mu am loolu il faut ñu dindi ko. Hmm. da ngay ah, toog ab tarixa wax fee beneen tarixa jóge fee dingat ko. loolu kañ lay loolu kañ lay su ko defee tubaab bi dañuy gën a am doole suñu kaw. loolu dëgg la sëñ bi sëñ yow euh, daal da jàpp ne que yoon wi ñu jël. mu ñu ne yoon wi moom moom baaxut yoon wi la ñu war a baax. waaw moom bu fekkee ne daal yow da ngaa jugoon fii jëm Touba dox dox dox xam ne ay ay. xam mujj bam leer na li dox jëmoo Touba. dama yaakaar ne li gënoon mooy nga tourné waat seetaat beneen te fekk nag ñun ci sunuy aada ak sunuy cosaan ak li ñu fi mag ñi bàyyil man boobu ci gëstu yu ma def te yaakaar naa incha allah bu ma yàlla defalee tawféex danaa publier téere boobu. ci Matlabul Fawzayni mm-hmm. ah indil nañu teg aw yoon woo xamee ni buñ ci jaaree incha allah. waaw yoon wi foog ñu foog yow nga nga bind ko nag. waaw loolu moom ay lu mat lu mat juróomi a ngi manqué. waaw daal di nag euh, sama a. waaw boo ñu ngi lay xaar. waaw incha allah waaye nag man arab lay bindee arab lay bindee waaw waaw waaye boo ko bindee ñu tamit am na solo ñun sénégalais yi léegi jot na ñu ñiy xalaat si ñun. Mhm. ak ñi mën a bind si ñun ñu bind ay model ak ay voix ni ñu si mille 2014 bii ñu nekk war a jëm mille nangam yoon wii lañu war a jaar ñun lii mooy si suñu xalaat loolu jot na parce que tubaab bi boobu ba léegi ñoom ñooy jël rek bindal ñu ay affaire ñëw rek jox ñu ñun tam ñu appliqué. Mhm. sëñ bi yow lan ngay ban message ngay jeexale waaw man li may jeexale man moom wax dëgg yàlla xam nga man su ma sañoon euh, sama dëkk bi pire moom xam nga guy lu mu yàgg yàgg man damay ñibbi xam nga ndakaaru moom ay tool la dañ fee ñëw pour bay te tôt ou dañuy ñibbi il faut ñuy préparer retour retour au bercail hmm. may ñaan nguur gi fi ne nit ñu dimbali ci suñu dëkk bee suñu dëkk ba màgget na màgget goo xam ne moo raw paa bu am cent cinquante ans hmm. école ba baaxul marché baaxul stade ba ñuy wax benn àll la ñuy jël wëraleen ñu fa ab miir soo duggee doo am sax foo toog amul hmm. tribune amul dara te yenn saa yi nga am ay gan yu jóge fu ne ñëw war a seetaan si match foofu duñ am fu ñu toog da ngay yenu si seen yóbbaale comprendre soo gisee li ma gën a metti mooy soo demee pompier da ngay dégg ñu naan Thiès ngaa yi ngaay tëppir loolu ba may xale ba léegi daf maa metti ba léegi daf ma metti trop ndax amul garage ba juddoo ba tey ñun dëkk bu toll ni Pire 72 villages ñu bëgg koo def commune amul garage loolu lu lu lu lu rus la te suñu autorité ya fa ne suñu demetee ba fexe toog toog ak autorités yi nañuy wax waxi dëkk ba tey bàyyi di wax seen waxi bopp dañoo xaw a mag la sax léegi ñoom Moustapha Cissé sax dëkk yi léegi li xew mooy booyee jël dëkk bi dëkk yëpp léegi booyee ko jël parce que ñoom dañoo mag tamit maama fa ne dinaa ni ko demal noppal ci régler sama tool yi maam yee te bàyyi maag dëkk bi ma gère ñu ngi lay gërëm yow Mamadou Ndoye Bane euh, da ngay yëngu si wàllum euh, wàllum rajo télé hmm. euh, di def liggéeyu am solo sur le terrain surtout sur le terrain di wàcc di ñax Euh, loolu di tase ku ne Sénégalais bu ne léeg ñi nga xam ni sax kenn du leen kenn du dem si ñoom. Hmm. yow ngay dem si ñoom te it nee nga piir gëlee nga dëkk yow bugg nga fa jiite ngir euh, soppi mbir yi di la gërëm yow it euh, sëñ Chouaib kebe dëgg dëgg nga indi fi kàddu ak xalaat yu am solo si suñ réew mi nan lay suqalikoo. mbokk yi tey sunu jotaay lekk ak naan bi ñu yaasin euh, di defal euh, yaasin daa indi xéewal xéewal goo xam ni euh, bés bu ne li muy indi rek kenn jégaanewu si dara lépp lépp si biir si miim réew la la meññee wala la juddoo yaasin ñu ngi lay nuyu la ziar. maa ngi lay fay di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp. yaasin li xeeñ na li li lan la ma. tey yufuf laa la indil. waaw mais nag euh, daal di la koy griller. waaw daal di koy accompagner li nga xam ne mooy ariko ver hmm. moment yi dafa bëri si marché bi. def ko ak carotte ak li nga xam ne mooy tomate ak soble. xool loolu laa ko sauté haricot bi nag dama ko griller moom it. mais mais lii dafa te maanaam lii moom lan la moutarde. Euh, moutarde la pour pour jën bi ak citron bi. te bu yomb la xam naa bu ma waxatee ñu ne yomb na ba mu ëpp mais hmm. man. Euh, defe naa yii bu amee marché du ma dem di ndugg lu cher. Hmm. xam nga bële passé nee naa la 1000 francs la ñu ne dafa yomb. Hmm. xam nga jéeg ji nee nañ dafa yomb mais lii tamit tey mën naa ne ni 1200 francs la. donc pour 4 personnes. parce que ñeenti jën laa jënd ñeenti yuufuf lañ ma jaay sam bi 500 francs ma jënd haricot li nga xam ne 100 francs parce que instant yi dafa bëri soo demee marché defe naa saamu 100 francs bi wàññi naa ko. kon loolu def war nañ koy consommer. ku hmm. bañ daal li ngay nduggee cher del consommer lu mel nii parce que yii am na solo. lu mel nii nga nii 1200 ñaar téeméer ak ñeent fukk ñeenti nit mënees na see lekk ba suur. ba suur kel waaw Yaas lii lan lay nekk maanaam day nekk euh, añ lay nekk reer lay nekk ndekki njogonal wala lan lay doon. bon comme ñun amuñu habitude di añee lii mën na nekk añ. Mm. parce que pataas tamit am na ci kii bi pour gën ko diisal mën nga si boole say pataas mën na nekk añ mais comme ñun tàmmuñu ko di añee comme ceeb rek lañuy def lii mën na nekk li nga xam ne mooy reer mm. sinon ñi nga xam ne dañuy régime mm. diabétique yeeg euh, ñenn ñi mun nañ ko def seen añ kii de boobu mën nga ko añee c'est complet nga ko añee boole koog euh, beñe mboq mi ñu fay siga laam indil dem ko booleen boole day gën jàppandi boo leen boolee rek ah kii de xanaa ñu jublu si rek waaw bisimilah <laughs> <laughs> si ñam bi bisimilah léegi sumu mbokk yi nekk Amérique vraiment ñoom euh, Thérèse Sambou ñoom Georges vraiment gars ñoom Alioune Ba ñoom Cheikh Gueye ñoom euh, vraiment gars yi waa Atlanta waa New York waa New Jersey gars yi yéen ñëpp xooleen bi am na jën am na am na carotte pour euh, man bii dama ciy def karoot ak jën après dinaa jël haricot vert bi soo mbokk yooyu nekk Gabon bu dokaay yooyu la ñu nekk Côte d'Ivoire mhm. ñu ne yëpp <laughs> yéen moom bi ah. Tunkara bu laal ku bëgg citron ma may ko. Ah, mhm. waaw waaw waaw naa ah mhm. bëgg nañ kay. Mhm. bon bii nag. maa ngi koy lekkal suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi dóor waar. gars yi nga xam ne dañuy ñàq di jëriñoo. baykat yi sàmmkat yi nappkat yi mécaniciens yi artisans yi. vraiment ñi nga xam ne tappalewuñu dañuy dund di maanaam di ñax pour lekk ñooñu les gars yaay moom bi mbokk yi tey suñu taxaw seetlu dañu si ànd ak euh, Soukeyna Thiam Soukeyna moom moo yor kàddu club modèle Soukeyna ñu ngi lay dalal di nuyu la ziar. jërëjëf Tounkara si invitation bu ñu invité. bon c'est normal euh, ñun nag ñu ngi ñëw tey di wax si affaire suñu événement bi ñu war a amal si le 8 février si hôtel bu ñu naan Radisson Blu pour di sargal ñi nga xam ne nii euh, comme année passée on l'avait basé sur euh, le civisme cette année on va baser sa sur. lecture du travail à l'action sociale. daal daaw da ngeen sargaaloon ñi nga xam ni ci réew mi ràññee nañ leen si wàllu worma. waaw ren nag ngeen fas yéene sargaal ñi nga xam ni dañ leen ràññee si wàllum liggéey ak dimbalante. voilà euh, su koy na loolu yéen lan ngeen si jublu. jublu rek comme suñu but suñu objectif mooy que euh, ñu am Sénégal émergent on dirait on va même dire on va aller plus loin euh, voilà Sénégal bu suqaliku mm. on va aller plus loin et parler de l'Afrique émergente Euh, ñu ngi ñu ngi ci jublu ci euh, wane ay ñi nga xam ne ni dañu dañu commencé si dara te tey ku leen gis ñee leen. Mm-hmm. tey ku leen gis ay royukaay lañu comme ni ñu la ko doon waxee euh, démb ak bët ki démb. Mm-hmm. mooy que ni il faut que xale yi tey yi mun a am royukaay pour ëllëg ñu xam ne ni jarul dem. bitim réew pour réussir. Mm-hmm. am na ñi nga xam ne fii la ñu commencé fii lañu dooree te tey ku leen gis xam ne ni ñii kat fooye ñu seen àdduna fooye ñu seen bopp. loolu am na solo de Soukeyna fàttali ñu club modèle moom lan la. Club Modèle Club Modèle en fait c'est un groupe que ni ma la ko mën a expliquer groupe bu jeune euh, cadre lañu ñi nga xam ne nii peut-être au début dañu doon toog di waxtaan et ils ont fait un constat constat bi mooy lan mooy que ni on est au Sénégal en ce moment perte valeur yi dañu dañu ñàkk valeur yi nit yi amatuñu ay valeur dañu fàtte seeni i valeur di wut yeneen royukaay di wut yeneen di valeur xam nga euh, civisme bi tamit kenn waxatu ko hmm. et euh, euh, patriotisme tamit parce que il faut que mu am problème mu appartenance bëgg sa réew xam ne ni fii nga bokk pour mun a def jëmale ko sa réew hmm. mu ngi noonu léegi daal yéen euh, club model maanaam daal ñoo xam ni lañ jàng nañ ne ñoom dañu bëgg toog xalaat daal. Mhm. Sénégal nu muy jëmee ca kanam. waaw mais nag il faut que ma préciser benn affaire c'est pas parce que à la base c'est un groupe de de jeunes cadres que maintenant que ni foofu la yem. Hmm, club bi c'est ouvert à tout le monde. Hmm. couche sociale yëpp. képp ku mën a jug jël ñëw rek inscrit c'est aussi simple que ça ñëw inscrit ñi ngi euh, liberté liberté et puis de toute façon on a le site aussi du club d'accord mm. ñi ngi ci Facebook bi aussi club modèle c'est aussi simple que ça e voilà y de E euh, waa club <laughs> modèle yëpp ñu ngi leen di ziar sama wëlëre Ibrahima Niang euh, moom mi ko jiite ñu ngi koy ñu ngi koy sargal léegi su koy na ñooñu ngeen di daaw kan ngeen ràññee woon daaw bëri na mais nag daaw dañu dañu yemoon ci Sénégal rek comme c'était la première édition ya aussi euh, on va citer euh, euh Rose Wardini hmm. docteur Rose Wardini qui est voilà mooy présidente euh, Midi Medisol hmm. et internationale il y a Ndoye Bane qui était là invité bi hmm. et il a plein d'autres euh, l'empire des enfants et cetera xam nga ku lim ku lim rek juum fàtte looloo tax ñoo ñëpp kenn waa léegi sargal bi lan lay nekk sargal bi mooy que dañ lay jox ràññee la jox la prix jox la hmm. diplôme ñëpp gis la ci télé bi gis la si hmm. média yi gis la ci journaux yi xale yi gis ne ni ah kii ban nit la xam parce que am na ñoo xam ne ñi ngi liggéey hmm. am na ko xam ni dem nañ ko seeti sax ci région yi la nekk mu ngi liggéey te kenn xamu ko man mi sax buñ ma ko waxoon du ma ko gëm ne loolu existé na biir Sénégal gi ah, il faut ñu dem am na ñoo xam ne il faut ñu dem xëcc leen parce que bu ñu royukaay dañoo xool ci télé bi xool ci journaux yi te luñ fay gis peut-être que duñu loo xam ne ni suñu référence la référence mhm. yu baax ci ñun la peut-être que référence yu jàmbur la ñu on a besoin de nos propres ni mu adapté wu su suñu propre besoin ah, loolu mooy li nga xam ne ni moom c'est super important te loolu la ñuy jéem a def dem ci biir région yi dem ci biir village yi gis ñoo xam ne ni as tuut même su fekkee ni lu tuuti la ñuy def mais ñi ngi def seen participation on veut benn benn euh, peuple bi nga xam ne ni peuple bi nga xam ne dafa participatif xam ne ni Sénégal même bu dee sax benn tibb ceeb la dank teg loolu bu ñëpp tibbee teg dina dina dina daj boobu. Euh, li ngay wax ni si wàllum liggéey euh, tudd nga léegi Anta Mbow sama wóolare fële bu nekk Empire des enfants man ma dem ba maanaam. Euh, gis ñoom li ñuy def vraiment loolu moom vrai liggéey la liggéey boo xam ni surtout nag dafay yóbbu euh, ñi nga xam ni ëllëgu Sénégal ak ëllëgu àdduna bi yëpp ñoo ko yor mooy gune yi nan lañ leen di encadrer te ku jàppale gune euh, vraiment defar nga defar nga yàlla Soukeyna ban message nga bu jeexale message bi may mu wax rek mooy que ni il faut pas que aussi gouvernement bi ministre bi ñu oublier fàtte que ni civisme léegi éducation civique sax amatul école ñu fàttaniku ni que ni xale yi ñooy ñooy nekk magu ëllëg. Mhm. li nga doon li ñuy doon wax fii yëpp si plateau bi c'est super important mooy que ni que nañu bàyyi référence su jàmbur yi jël ci suñu référence wut suñu royukaay parce que y en a beaucoup dans ce mhm. pays là. y en a beaucoup. nañu bàyyi aussi dine dañu wut ay euh, ay ay ay. ay euh, coalition bilatérale ak ay nord sud ak nord te nord nord nord sud sud a ngi fi xam nga pour pourquoi hmm. ñu bëgg dem wuti ay référence ci ay pays chinois ay pays français ay pays am nañu référence mën ñu dem bu dul sax bu dul sax Sénégal bi ñu dem Afrique bu ñu nee ne Sénégal. Sénégal kay doy na su koy def waaw dégg ma ne bu ñu demee bu ñu demee bay wër lenn sax xanaa mën nañu yem sax Mali wala yem fi waaye dañu daw daw daw dem ba Europe dem ba eh, eh, Chine dem ba fu kenn xamul est-ce que ñooñu seen i royukaay seen i référence bokk na ak suñu référence est-ce que li ñu attente yi ñu war a am si àdduna bi est-ce bokk na ñoom seen attente ak suñu attente bokkuñu xam nga looloo tax ma nekk que il faut ñu def attention ñu jéem a wut ay référence fii si dëkk bi parce que am na fi wan ko suñuy xale nekk boo leen defee nii jàll ci yoon bi kii jàll xëy na maanaam que ak un peu de chance vous allez y arriver. non loolu moom loolu maa ngi gërëm tamit euh, président euh, ministre bu ñu naan euh, Itwa di ministre de la recherche scientifique bi nga xam ne ni il a accepté notre invitation pour ñëw teewee suñu. jiite suñu suñu suñu Sénégal ministre Congo. Mmh. Kinshasa moom moo ko nar a moom mooy invité d'honneur bi. kan mooy ku koy présider. ce sera présidé par comment dirais-je le président su. le président de la république quand même. dina ñëw moom monsieur ah loolu nag moom moom rek. ko daal nañ ko daal léegi nag moom moo a xam ne ni ñun ñu ngi koy jàppale. Ah, président tamit vraiment euh, lool moom man sa invitation maa ngi koy yeggee président président waa club modèle dañ la invité. pour nga ñëw le 8 février. nga ñëw seen euh, mbir mu am solo moom nga xam ne pour réew mi yëpp la nga ñëw teewe ko. te vraiment foofu euh, nañ na fa am solo euh, su ko ne yow doo fi ah, lan thème bi nag y a le docteur Djibi Diakhaté hmm. qui va faire le thème hmm. euh, ouvrir le thème hmm. mais aussi il y a monsieur Ablaye Agne qui est euh, qui est qui a été longtemps aux États-Unis et qui va parler de de la diaspora parce que thème boobu moo ñu ren bi parce que le club va s'ouvrir Euh, vers l'extérieur hmm. xëcc waa Afrique yi xëcc meneen yeneen feneen yi tamit parce que Sénégal yemul rek sénégalais yemul rek ci Sénégal sénégalais ngi fépp ah loolu wér la euh, donc thème bi euh, jibi jaaxate ak Abdoulaye Agne Abdoulaye Agne ñoom ñaan ñëpp maa ngi leen di sargal sama ay wóllëre lañ ñoom ñoo ko nar a animé su ko ne yow xam nga doo fi gan dikkoon nga fi jamono yële su koy ne ñu su na ne da nga waxoon yow xeesal tuuti rek nga doon def léegi bàyyi nga wala yaa ngi si ba léegi maa ngi def lu bëree bëri bu fekkee loolu nga bëgg wax man nee naa la man tukulóor laa tukulóor laa. su ko da non da nga waxoon tuuti nga doon def. man waxuma dara dama ne soo ma invité waa tey te ba tey invité wu en tant que su kee ne caam li mën a wax wax déet tey moom club modèle nga invité je suis là pour le club modèle. yéen club modèle di nangu ñi si bokk di xeesal. oui mais attendez il y point que je veux souligner d'accord il faut pas que ñu attaquer aussi euh, euh, euh, domaine privé wu nit. nous lu ñu ko bëgg lu ñu bëgg def mooy que ni. Sénégal xeesal du domaine privé problème de santé publique la. non mais non mais su ko ne non moom duñ ko nangu ko fi wax. dañ may tooñ yaa ngi may tooñ tamit de. loolu duñ ko fi te yow yaakaar moo ni tooñkat nga. yaakaar moo ni tooñkat nga waaw su ko yow da ngay xeesal la tukulóor laa sama moom tukulóor la. ñu ngi lay gërëm Soukeyna Thiam euh, ñu bàyyi léegi ak seen vidéo du jour. Après la célébration du centenaire de l'hôpital Aristide Le Dantec place maintenant au projet d'établissement public de santé de niveau 4. Un établissement hospitalier qui devrait à terme constituer un centre national d'excellence. L'hôpital Aristide Le Dantec connaît un paradoxe euh, assez particulier, c'est celui de disposer de ressources humaines euh, en nombre suffisant et en qualité. En moyenne 250 euh, médecins il y a près de 70 professeurs d'université agrégés. Euh, malheureusement, ce, ce, personnel est confronté à des infrastructures euh, obsolètes, à un plateau technique euh, vétuste. Cet établissement public d'une capacité de 726 lits, répartis en 18 services modulaires, 32 salles d'opération, avec un service d'hôtellerie haut de gamme et une prise en charge des permettra de développer les activités de recherche et d'enseignement. Dans ce projet, ce qui est inédit, on a créé des espaces qui doivent occuper seulement les malades, qui sont des lieux qui se trouvent dans des patios, qu'on appelle en même temps le poumon respiratoire de l'hôpital. Parce que c'est des lieux où le malade, en toute quiétude, peut se promener tranquillement. Ce qu'il a aussi de plus intéressant dans ce projet,

Il permettra, à terme, de limiter les évacuations vers l'étranger grâce à une nouvelle offre de soins locale. Ce projet, qui court depuis 10 ans, euh, a impliqué l'ensemble du personnel de l'hôpital d'Antec, toutes catégories confondues. C'est un acte citoyen de leur part, mais également euh, rupture conceptuelle. Le cœur du projet en est le projet médical, qui est la synthèse de 22 projets spécifiques élaborés par les chefs de services médicaux. À côté de, du projet médical, il y a des projets associés de gestion, de soins infirmiers, de maintenance, etc. Nous voulons offrir donc aux Sénégalais vraiment un hôpital de niveau comparable à ce qu'on voit dans les pays du Nord. De par ses caractéristiques, il comprendra une réorganisation des services existants en pôle, une conception modulaire des locaux permettant d'accompagner les mutations de l'établissement. Je crois qu'un projet d'établissement de quatrième génération vient absolument à son heure parce qu'il permettrait non seulement de réduire les coûts des soins, de réduire les évacuations sanitaires, mais également de faire la promotion justement de l'expertise au niveau national et qui permettrait même un certain leadership. Je crois qu'il est prévu aussi dans cet hôpital de référence un centre de recherche de très très haut niveau où, où les priorités de recherche pourraient être dégagées sur des pathologies ou des maladies qui seraient plus spécifiques dans notre région et où les recherches ne se font pas suffisamment. Donc euh, je crois que c'est un projet qui vient vraiment à son heure. Nous ne pourrons souhaiter que l'appui des autorités pour vraiment ce, ce, projet. Et je crois que tout le monde trouverait ce, ce, son compte dans une institution comme celle-là. Projet fiable et viable et dont l'impact est assez déterminant, les acteurs de la santé, toutes catégories confondues, entendent réaliser ce projet avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. La structure même de l'hôpital est, est, dépassée. Hein, nous assistons à une dispersion du, du plateau technique. C'est comme si on avait des services qui étaient plutôt superposés, et ce qui rend difficile le, le travail. C'est ce qui a fait que lors euh, des assises de l'hôpital Aristide Le Dantec en 2005, le personnel de l'hôpital s'est mobilisé hein, comme un seul homme, pour dire que la seule solution était d'aller vers la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le projet avait été porté par les directeurs qui nous ont euh, précédés. En 2012, nous avons célébré le, le centenaire. Le temps fort euh, des activités de ce centenaire devait être la validation du projet d'établissement de, de l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous avons eu à partager ce projet avec euh, tous les acteurs. Il y a eu la société civile, la presse, n'est-ce pas Mais il y a surtout eu les, les, malades, les usagers qui ont eu à justement à découvrir ce projet et à apporter leur, euh, leur point de vue. Nous estimons qu'au total, il s'agit de doter l'hôpital Arcile Dantec d'un hôpital ultra moderne avec un plateau technique de dernière génération. des services de, de pointe, constituer une réponse à l'offre de, de soins, mais surtout aller vers un regroupement du, du, plateau te technique. Dans un contexte de changement et d'exigences nouvelles, il me paraît légitime de m'assigner de nouvelles perspectives pour cet hôpital centenaire. Et je sais que je trouverai en Monsieur le Président de la République et en Monsieur le Premier ministre des alliés de taille. Et je peux m'engager ici pour dire que nous ferons tout pour que ce projet d'établissement puisse voir le jour et puisse être mis en œuvre. Tous ensemble pour la réalisation du projet hospitalier de niveau 4. mbokk tey sunu ñaareelu jotaay Sénégal ca kanam dañu si ànd ak Moustapha Fall moom doomi réew mi la yàgg loolu bitim réew euh, ñëw di indi xalaatam ak it Idrissa Sy Idrissa moom am ay xalaat yoo xam ne si wàllu mécanicien yi nan lañuy ñuy gën a jàppandalee yëwanal seen liggéey sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu la daal la ziar. ay ñoo ngi lay ziar Tunkara euh, di kontaan ci invitation bi ñu invité. di nuyu say euh, téléspectateur di leen euh, wax asalaamaaleykum waaleykum salaam euh, di nuyu waa Belgique yëpp waaw waaw Belgique Anvers et Bruxelles waaw waaw di nuyu sama gars yëpp dëgg la ak kër gars yi dëgg la waa Bruxelles yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom Sonia ñoom faatu Ba sama yaay ñoo ñëpp ñu ngi leen di ziar Idrissa yow tam ñu ngi lay nuy da dalal la ziar Moustapha yow ñaata at nga def Séné fële Belgique bitim réew. bon bitim réew léegi maa ngi fa def 17 euh, euh, ans. fukki at ak juróom-ñaar waaye depuis 95. Euh, hmm. laa fa dem mais amoon na benn intermède de une une boo xam ne dama ko toogoon Sénégal ba 99 hmm. laa dellu si waat laa delluwaat 99 boobu ba léegi nag maa nga fa ko. bon yow ñi nga xam ni seeni at xaw na gudd tuuti hmm. ràññewoon nañ la bu baax si réew mi. <laughs> si waa Dakar City Breakers kooku ñu ngi koy fàttaliku bu baax ñoom euh, Laay Camara Laay ma nga fële ca Australie ñu ngi koy euh, ñu ngi koy ziar waa Australie yëpp ñu ngi leen di ziar euh, te Laay vraiment booy ñëw kangourou moom vraiment mun nga ñu indil peeru kangourou ñu dugal ko fii si pale président Macky Sall bi comme ça pale bi sax xaw a gën xaw a waaw xaw a gën a tuuti kii Moustapha <laughs> yow maanaam sunu réew mi yéen boo leen nekkee fële bitim réew Sénégal ban ban ban gis-gis ngeen si am si nan lañ ko war lijjante pour mu taxaw. waaw euh, xam nga fële yàlla dafa def nii mag ñi comme li ñu doon wax naan góor balaa moom mat góoru tukki bon dañ fay gis ay euh, yu positif yoo xamante ni euh, kuy sénégalais rek bëgg Sénégal dangay ngay bëgg mu xew fi gis fa tamit yu négatif yoo xamante ni kuy sénégalais bu baax da ngay ñaan yàlla mu bañ faa xew mu bañ fee xew donc man ni ma ko gisee moom mooy. Euh, euh, liñ fa gis mu baax nañu fexe ba indi loolu jéem ko proposer ak proposition boo xamante ni vraiment day day day day day euh, ëmb fànn yëpp. mais mu xool nag ñu xool tamit nga méngoo na ak. sunu moom laa wax mooy indi fànn voilà proposition boo xamante ni day day day day day fépp fépp da koy da koy laal. du mm. doon proposition boo xam da ngay ñëw rek. Euh, wax sa benn. mais comme lan loolu yow comme lan comme surtout sur l'organisation man toujours les européens dama ni li ñu waral roy ci ñoom moom mooy l'organisation d'abord sànq maa ngi dégg ñu naan ay euh, li ñuy sànni ci mbedd mi euh, ay kaasu kafe mm. ay mbuus ak ay affaires yooyu mais parce que dañoo préparé wul fañ koy def parce que man nii rek dund naa expérience bi il y a pas longtemps dox naa yore sama benn mbuus bëgg ko sànni mais aw ma fenn fu ma koy sànni. waaw li dëgg la. te ma nekk jàng naa ci ni pot yi ñu ngi ci côté bi da jël sa mbuus dox ba ci benn pot maximum maximum cinquante euh, cent mètres deux cent mètres boo ko toxee di nga gis benn pot mais sama xel nekk na ci bañ ko sànni ci ci suuf. mais wër naa mais gisuma fenn fu ma ko sànni lan laa mujj li ma doon bañ ci début bi moom laa mujj def ma sànni ko ci suuf donc il faut condition yi. yi nga xamante ni moom moom euh, ay conditions la ñuy teg ba pare boo tegee condition ba pare soog a laaj nit ñi ñu suivre condition yooyu ku ko suivre nag nga tàllal ko parce que fële euh, euh, à inverse pour nga sànni canette canette vide boo ko sànnee ci suuf wala nga tufli deux cent cinquante euros la. tufli mais tufli xaaxtandiku tufli boo ko fa defee c'est deux cent cinquante euros. amende police dañ lay amende deux cent cinquante euros. waaye loolu bu ñu ko doon def suñu réew moom voilà moo tax ma ni nag mënuñu ko fi def léegi parce que boo koy wax ci sénégalais yi léegi day mel ni yow tamit da ngay wax rek pour wax parce que condition yooyu ñoom ñu teg réunir agul fii parce que nee naa la hmm. chaque cent mètres boo dox maximum am na pot boo xamante ni mën nga fa sànni mais pourtant nag Moustapha yooyu yomb na si réew de tey euh, maire yi gis nga nee nañ ñoom dañuy def pavage yu Dakar yëpp. Mhm. Euh, def mu ay milliards yu si def. Mhm. mais suñu xalaatoon noonu tamit ne war nañ teg ay mbalit foo xam ne yow soo soxlaa rek di nga fa sànni mbalit. waaw loolu tam doon na yomb. effectivement parce que nous nous one est en en retard. c'est-à-dire euh, moom laay wax si yenn saa yi sama gars yi li ñu gis Europe. Hmm. du de européens yi dañu xëy rek def ko ci cinquante ans dix ans quinze ans. fa doon loo xam ne dañ ko togg presque cent ans. wala ñu togg ko presque cinquante ans yar nit ñi teg leen ci yoon woo xamante ni dañ ci waxtaan ak ñoom ni leen fii lañ leen jëlee fii lañ leen bëgg a yóbbu te boo leen demee fii ci ngeen di ëpp bien-être que mm. fi ngeen nekk parce que yooyu yëpp dafa ànd ak ay projet expliquer nit ñi mm-hmm. fi nga leen jëlee ak fi nga leen bëgg a yóbbu te bu ñu gisee nga teg première pas yooyu am na ci ñoo xamante ni amul problème il te suit aveuglément. mais léegi ñun suñu réew yi lu tax nga lu tax ñun ba léegi loolu mënuñu ko def pourtant yooyu dafa élémentaire. parce que xam nga li tax ñële dañu construire seen dëkk pendant peut-être soixante ans soixante-dix ans soog a noos. soog a hmm. fo soog a ree soog a xaaxataay dem nañu ba jël par exemple ñu ne France algérien yee ko defar tali yeeg pont yi Belgique yi ainsi de suite ainsi donc dañu dem ba jëli ay nit ñu leen di liggéeyal. ñun nag ne liggéey ñu ne non nañu teg fële nañu noos ba pare nañu bëggee. Hmm. loolu moo ñu guddeel. ñun dañu gis suñu gouvernement yi sax gaa ñi dem di bëggee. voilà parce que gouvernement ku ñu fal ministre ngay ngay tëgg ka fecc. mbaboor gi topp la kon kooku yaa ngay xalaat noos bi ci kanam. Hmm. te ñële kuñ ci fal. yow da nga naan liñ ma teg est-ce que dinaa ko réussir. mais gis nga nu may <laughs> mais mais li nga wax nii gis nga solo bi mu am xoolal ñun sunu réew yi. tey Idrissa mii. suñ ko fi nommé woon directeur général u benn société bu mag. wala président conseil d'administration. Mhm. léegi nga dégg ñu tuddee ko làmb. wa jeex na. jeex na voilà c'est c'est mu xool dem lijjanti affaire drapo kii Idrissa Coow li ne kur mu ko léegi moo moom drapeau boobu ñu lay tuddee pour lan la mhm. pour nga génne xaalis pour nga génne xaalis xaalis foo koy jëlee ci li liñ la jox parce que salaire boobu amoo ko voilà parce que ba ngay ñëw amoo ko donc euh, fii loolu dafa yéeme hmm? loo xamante ni yow dañ lay fal ministre nga war a tiit war a léegi sax xalaat yëpp war a nekk ci naka laay réussir mission bi naka laay def ba bu mu fi jógee ah ñi ñi ñëw fekk fi loo xamante ni euh, lu am solo la ba ñu mën a eggale. Mm. mais noo da ngay gis dañuy wane ba ci biir bureau bi ñu lay accueillir tama yeeg euh, géwël yeeg nañ ma baal. ci kii non looloo fi am yuuxu wax karang karang tagg say maam tagg say kii. mais ñooñu ëllëg bu ñu maa nga ñëwoon sa bureau keroog xanaa gisoo ma mais noo def génne dara te loolu moo indi. li ñuy wax moo indi fen gi moo indi naafiq gi moo indi këpp kees gi moo indi def loo mënut. dëgg la mais ñun ñi ñuy roy moo tax ma ne toujours ñun dañu dem euh, Occident. roy lu bon li indi lu baax la ñu ba fa mais jaxa gis nga euh, keroog consule général u France yi mhm. dafa ni ñu wax affaire visa yooyu bon nit ñi bu ñu ñëwee foofu ambassade kenn du leen accueillir bu baax mu ne loolu amul loolu temps yu passé la mhm. léegi nit ñi dañ leen di accueillir condition yu baax la mais sénégalais yi mu ne dañu mel ni français yi mhm. ñoom lu ñu bugg rek mooy coow coow coow coow mais mais mais foofu euh, daf ñu xas benn xas boo xam ne war nañ si bàyyi xel mooy francais yi loolu am nañ ko gaaw ñoom coow bëri na mais tamit français yi dañu am liggéey bu heure liggéey jotee français yi dañuy defar ay train defar ay avion mhm. defar ay métro mhm. defar seen seen réew ba mu baax mhm. ñun nag yooyu xooluñu ko ñun beneen bi rek la ñuy xool voilà fo bi mooy li ngay wax ni mooy fo bi da ngay gis même les émissions mois je vois dans les télé des émissions yoo xamante ni fañ koy teg sax fañ koy teg mooy chaîne yi nga xamante ne dañ ni la yow boo bëggee caay-caay demal foofu. Hmm. boo bëggee caay-caay yow demal foofu. je généraliste yi doo gis ñu teg ci clip doo gis ñu teg ci ay émissions yi nga xamante ni man moom laay gis fii ñu koy teg mu nekk ci chaîne généraliste yi nga xamante ne xale bu ndaw sax mën na ko seetaan donte boo ci defee moins de 12 ans. Hmm. sëñ bi li nga xam na solo de. donc il faut il faut euh, critique bi. yaatu parce que man boo ma critiquer. wax nga dëgg c'est pour c'est pour que ma avancer. parce que boo xoolee ay TF1 ay antenne. du ñu wane clip du ñu wane yooyu dañu créer ay MTV yeeg ay ay ay trace ak ay affaire yooyu ku bëgg a seetaan sa clip nga dem fa seetaan. waaye ñii moom maanaam lépp la ñu jaxase dañ ko suppu kànja dañuy jël dañuy jël reportage jël jël jël euh, clip jël te clip yi ñuy teg fii kenn ñemewu ko teg foofu. dina dinaa la wax benn secret. Hmm. RTBF. wane na benn film rajo télévision rajo belge rajo national euh, wane na benn émission boo xamante ni dañ ci jouer jëkkër ak jabar ñu enlacé wu tëdd ci canapé avant huit heures du soir seen CNRA ñoom porté ñooñu plainte ni leen loolu ngeen war a teg xale yi tëddaguñu parce que huit heures jotagul mm. en Belgique te balaa ma dee sénégal yi boo waxee ñu naan dëkk tubaab yi dañu bon dañu bon te li nga ñoom seen mbon dañ ko sax réguler ki bëgg a bon bonal waaye ki bëggul bon dañ koy protéger ici nag on protège pas ñu bëggul bon. dañ leen di imposer ay ay émissions yoo xamante ni se émission yoo xamante ni vraiment boo ko seetaanee sax da nga naan mais. ak ça qu'est-ce que ça peut nous servir. les films c'est mais c'est c'est de l'horreur horreur sax dañ koy wane fii. te oh. horreur dafa am lu muy def ci bopp xale. bu bu baax bu wër. donc nga demati ci brésilien yi voilà nga demati ci am na ñoo xamante ni ñu ngay dund Europe xamuñu Rihanna parce que télé yi ñuy seetaan duñ ko fa teg fii nag xoolal une heure xale yi heure yi ñuy seetaan kii lañ leen di tegal ay Rihanna xoolal façon solo bi ñuy solo ñoom Belgique foofu ay ay ay ay ko ay ay ay film brésilien duñ ko fa teg xalaatuñ ko duñ ko teg la ñuy teg série boo xamante ni waaw ñun luñ daal ñun luñ daal dañoo feebar xam nga loolu ñu naan dañoo war a ndëppal quatre 2002 laa koy wax Sénégal ndëpp national moo fi war a am parce que foo laal muy metti te nag ndëpp bi du wax rek a koy def parce que sénégalais mën nga taxaw wax ba ŋaang mu ne la saa yaa wax dëgg ay waay lii si kar bu xëyee waat ci li li mu nekk. <laughs> keroog xoolal li ngay wax nii benn góor fii 2STV dañ ko wane muy saw benn mag de. muy saw si mbedd mi. ñu filmer ko ba pare laaj ko ginnaaw gi waa góor gi saw si mbedd loo saw mu ne loolu koy baaxul. loolu baaxul <laughs> yow da nga benn projet si ngay yëngu yow. bilaay mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu ñëpp ñi may donc man euh, PDG société la tudd euh, société bi liggéey ci wàllum mbay jënd ak jaay. waaw da ngay jënd di jaay. waaw looy jënd looy jaay. Euh, lépp luy luy ñor. luy ñor waa lépp luy ñor. maanaam mboq sésame. waaw lu lépp luy lu ñuy bay daal. waaw lépp lu ñuy lépp lu ñuy bay. boo ko jëndee après nga jaayaat ko. ñu koy soxla dama am ay partenaires yoo xam ne damay lëkkaloog ñoom damay ay at. Euh, léegi sa sa projet bii nga am moom projet bi lan la. voilà léegi euh, damay may dama bëggoon dëggal li sëñ bi wax ci wàllum sànni euh, am café Touba wala mouchoir boo bëgg sànni doo am foo ko sànni dafa y a trois ans de cela ba ma demee Belgique gis. poubelle yooyu nga xam ne dafa am cerceau mel ni comme cerceau roo nga xam ne à tout euh, foo dox rek 100 mètres 200 da nga koy gis ñu def ko fa xamoo lool ba mu fa jógee laa ñëw pour bind projet boobu xam nga cerceau benn cercle cercle la boo xam ne rek dafa yomb main d'œuvre du la dikke dara suñu artisan yi mën nañ ko defar tu vois mais li manque ci réew mi moom mooy du ñu déglu maanaam pour jot autorité yi. ñi nga xam ne projet boobu bi ko bindee kooku doon déetal. non bind naa ko euh, y a trois comme am na ñetti at ci ginnaaw. mais da ngay jéem a. kan nga ko doon proposé. non dama ko bind teg proposé gu moo proposé wu. ah Idriss ko nag parce que loolu maanaam njëriñ la. ñun suñu gis nga Ndakaaru man loolu laa pavage bii ñuy def. waaw li ko jiitu. moom moo doon ñu régler cet mi ba pare. parce que boo pavé te setoo. xam nga loolu du dara te pour nga set comme li Moustapha wax léegi. Mm-hmm. dafa soxla ay conditions. Euh, te sa projet bi vraiment c'est d'intérêt public. Mhm. Euh, vraiment na nga ko bind jox ko maire mais léegi sa projet bi ngay wax ci wàllu mécanicien yi moom lan la. voilà léegi euh, projet bi li tax ma bind ko dafa am. jafe dafa amoon benn bindukatu projet nga moom da nga ami projet. waaw mais waaw réew mi rek. <laughs> alhamdulilah waaw voilà réew mi rek moo ma soxal. en 2007 benn oto boo xam ne trois cent 307 la bu panne. oto bi yóbbu nañ ko ci garage mécanicien daanaka fépp fii senegal mhm. mënuñu ko defar. gars yi dañ ciy nekk naan démarreur bi laag alternateur bi laag lu ne ñu jéem ko mënuñu ko defar tu vois léegi euh, boobu euh, ensuite ñu yóbbu ko maison maire bi ñu leen représenté fii. Mhm. waaw ba ñu demee dugal euh, seen machine diagnostic gi ñu ne ñu oto bi dafa paan benn pièce bi ñu naan bési waaw léegi loolu dañ koy commandé France. xaar de semaine trois semaines muy doog a ñëw. Mhm. ñu doog ko monter tu léegi loolu ma ne man beneen sénégalais bu amee panne bi comme bisi moom dina sonn dina sonn comme man de léegi nag ma dinaa fexe ba beneen sénégalais bu paanee mu bañ a jànkoonteel problème yi ma am. ah de am na solo moom. tu noo koy defee. voilà non non taxoon nag 2007 mhm. bon aw moon doolee maa ngi doon góorgóorlu te bëgguma bind noonu noonu. te mhm. xaw ma li nekk ci biir. léegi yàlla def ba 2009 ma wàcc sur le terrain man nag sumay équipe ak ay jeunes lu ma 12 mën a leen tas leen ñuy dem Sodida fépp foo leen gis kuy garage mécanicien dem leen ngeen laaj leen parce que nekk te euh, appareil bi vali euh, bi diagnostiqué. Mhm. panne oto yi moom mooy mooy benn benn valise la boo xam ne ne boo ko dugalee. Mhm. en espace de cinq secondes dina la wax oto bi lu mu panne. tu donc ba ñu demee xool gars yi leen vraiment. mécanicien yi ne vraiment affaire bee leen tere nalaw parce que mécanique bu njëkk ba ak léegi bokkul. léegi mécatronique la ñuy wax. voilà mécanique ak électronique ñoom ñoo lëkkaloo. moo ngoog parce que auparavant bu njëkk ba mécanicien yi dañ daan ñëw rek déglu moteur yi. Hmm. wala oto bi ni muy defee ratement rek ñu xam ne ne bougie la. Hmm. xam ne alternateur la xam ne ne démarreur la. te léegi da nga ubbi capot oto bi capot oto bi boo ko ubbee. daanaka sax doo doo gis sax bougie. benn bloc rek ngay gis moom. <laughs> benn bloc ngay gis. loolu wér la xam valise bi moom lay permettre nga détecter panne. Hmm. waaye léegi loolu lépp li ko indi moom mooy 2001 nguur gi fi nekkoon Abdoulaye Wade dafa defoon benn décret 2001 ne oto yi am 5 ans dootuñu dugg ci Sénégal. Hmm. parce que oto yi dañu bëri woon waaw nguur gi ba muy bind ba muy def décret boobu. xalaatul woon ne tamit mécaniciens yi ñi nga xam ne dañ nekk ci mbedd mi ñi nga xam ne amuñu formation xalaatu ko woon mhm. léegi du coup parking Sénégal bi parc automobile Sénégal inondé ak oto yoo xam ne ne yu récent la. bees sax. Mhm. xam nga la kon xam nga ne kon. suñu mécanicien problème problème day am. Mhm. problème day am tu vois léegi man loolu euh, moom ma tax. depuis euh, comment dirais trois ans ma nekk ci. waaw ah, projet bi moom lan la Idriss. waaw projet bi forme mé mécanicien la dañ leen defar formation. ñoo leen di forme dañ leen di defar si si mécatronique bi. ngeen di waaw dañ leen di former leen di former pour ñu mën a euh, utiliser déjà appareil de diagnostic bi tu vois. Mhm. Euh, comme comme comme léegi ñu mën a réparer oto yi. léegi yow euh, da ngay yéen da ngeen jënd. da ngeen am appareil léegi fa ñëwee falaay laa fa may ma ma ñëw mais mécanicien yi ba ñu xoolee comme euh, am na mécanicien yoo xam ne ne amuñ njëg njëgu jënd valise bi ñu ne waa tey bu leen formé ñu mën a utiliser valise bi ah te mënuñu ko am loolu ñuy ñëw si formation bi sax du bëri waaw léegi nan la ñuy def nag ba mécanicien yi garage mécanicien bu nekk am valise bi ñu lebal leen ko soit ñu koy fay par weer hmm. tu mais secteur bi dafa doon secteur boo xam ne ne secteur bu doy waar la. bon léegi yow sa projet bi kon mooy euh, garage mécanicien bu ko soxla ngeen lebal ko valise bi. waaw ñoom ñuy mën a def seen diagnostic seen garage. voilà ma ngoog léegi valise moom ñaata lay jar. valise bi moo ngi jar un million dafa bëri ay valise nag. waaw boo xam bi si gën a bi si gën a cher kit complet bi moo jar un million quatre cent. un million quatre léegi kon yéen da ngeen di dem importer valise bi après ñëw lebal ko mais yéen loolu entreprise commerciale la. waaw mais. waa en entreprise commerciale la xam nga loolu moom moo taxoon jóg mais dama la bëgg expliquer hmm. damay maa ngi ñëw parce que euh, ba ma demee ba ut ay partenaire ay maanaam banque yi am na banque yoo xam ne dama leen sollicité woon pour ñu accompagner mécanicien xam ne ma la mais dañu dem ne ma projet bi vraiment intéressé na leen bëgg nañ ñu accompagner mais le problème qui se pose mécanicien yi à tout moment de leen di déloger xam nga fi ñuy nekk moomuñu ko donc lebal koo xam ne ne day hmm. jékki-jékki nguur gi jële ko fi ah, nan lañ koy lebalee mooy li nga doon wax sànq il faut mu ay préalable voilà hmm. léegi nag si laa jëlee projet bi teg ko nii di dox nag mécaniciens yi ñoom pour ñu nekk benn def fédération am nañ Revas ñoom am nañu Revas mais Revas du Revas ñëpp a ci nekk de. ñooñu ñëpp nekkuñu si. waaw ah, ñëpp a nekkuñu si mais Revas quand même euh, dajale na mécanicien yu bëri yoo xam ne. waaw mais du ñëpp a ca nekk. Hmm. comme Revas bi ngay wax. waa VDN dañu am seen seen seen seen structure bopp. tu mais parce que tant que ñoom defuñu loo xam ne comme fédération. Mm-hmm. lépp li ci njëriñ ci mécanique bi ah duñ ko mën a jëriñoo. donc yow pour yow solution bi mooy fi mu toll nii balaa projet bi ngeen koy mën a dérouler mécaniciens yi il faut ngeen am interlocuteur yu valable te ñooñu mooy fédération la mën a nekk. voilà. Mm. fan ngeen toll si loolu def leen fédération. voilà ñoo ci euh, souvent dañuy daje VDN chaque dimanche di si réunir di si waxtaan di xool. yow ak yéen ak mécanicien yi. waaw man ak mécanicien yi ak ñoom Cheikh. Hmm. yu nekk VDN. léegi moo taxoon ma ñëw ne vraiment. Hmm. émission bi Sénégal jën sa kanam hmm. dafa am solo trop. parce que bëgg sa réew mi moo tax nga xalaat li jëmale réew mi kanam. waaw léegi ma ne waaw. bon pour commencer ci ci man nit ñi am na borom xam-xam yu bëri yoo xam ne ñëw nañ fi parce que maa ngi dégg ni am na koo xam ne ñëwoon na fi démb. Mm-hmm. pour daal di defar dàll yi. Balla Mbow ñu koy ziar. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà Balla moomu tey bu ñu ko accompagner woon wàcc jël sa caméra dem xool fi muy defaree dàll yi. utal ko ay partenaire utal utal dem police bi. xam nga filmer ñi yor marché pour pour pour pour daal habillement ak yooyu noonu. pour jéem ko jàppale pour projet mu mën non Balla dina ñëw atelier ba bu soobee yàlla ñëw xool mi def parce que vraiment mhm. euh, encore une fois moom dañ ko war a delloo njukkal. Mhm. ndax euh, dafa jàng mbir mi moo ko jàngal boppam ne na ñëw expliquer ñu ne euh, yax euh, tànk dafa am ñetti yax. Mhm. Ah, ba pare no tànk juróom-benn ñaar fukki yax ak juróom-benn la am. ba pare am ay pàcc vraiment wan ñu forme yeeg muul yeeg yooyu Balla moom ku ku jàmbaar la sëñ Moustapha yow ban message nga bëgg jeexale pour moom message bi ma bëgg a jeexale rek moom mooy euh, euh, euh, Sénégal boo ko bëggee da ngay teg stratégie bu ko avancé stratégie yi ko avancé bari na am na loo xam ne nag neexut a dégg ci jamono jii parce que nit ñi nit ñi fo fomanté la mais boo gisee dëkk yi avancé récemment muy ay Chine ay Corée ay affaire yooyu Sénégal yëpp dañu ànd doon benn kii chinois yi wala coréens yi dañu ànd doon benn ku nekk ñuy xëccanandoo di yëkkatandoo di dóorandoo. mais ne loolu kilifa moo koy def. waaw mais parce que parce que kilifa yi tamit il faut que mu am pression pression population pour ñu. li ma wax mooy réew xam nga réew comme dëkk comme kër day am kilifa. waaw waaw fekkee réew mi amul kilifa mais loolu dafay compliqué mais euh, euh, am na am peut-être sax nit ñi mooy li ma la wax rek nit ñi fomanté la ba nga xamante ni am na loo xam ne boo koy wax sax nit ñi duñ la déglu mais tey li mënoon a développer Sénégal man laay wax de. mooy déjà parti dëkk bu 15 millions de personnes on a 180 et quelques partis. non 247. 247 te man ba may ba may jël information bi 181. 247 donc boobu dëkk nga ni ku ñëw tamit. boo defaree réew waaw boobu réew. boobu réew nga xamante ni euh, ku ñëw la ngay xalaat mooy la fi sama morom defoon dinaa ko dindi sànni tàmbalewaat sama bos mais bu dee foofu la ñuy topp. du ñu développé dañuy def ni ni chinois yi def. amuñu parti amuñu dara chinois yëpp a àndandoo woon di liggéeyandoo. kon yow parti yëpp dañ leen war a fi mu mais non mais ah, nekk yow sa parti sa poche nga. parti poche la man parti poche laa ko tudd. du parti sax yow cabine téléphonique. cabine téléphonique cabine téléphonique sax ëpp na. parce que cabine téléphonique sax dara la mais parti poche la mooy li ngay dugal fi ngay dugal sa loxo ak fi ngay génne. loolu la intéressé yow donc man Sénégal yaakaar ni mën na développé wu. mooy il faut que ñu euh, laab xol yi ñëpp doo ànd doon benn même bu dee parti mënul ñàkk ñu jël trois wala quatre partie yu mag. yoo xamante ni ca euh, ca euh, fond bi fond bi ñoo koy bokk. mais li ci kaw ku ci nekk yaay seet na ngay defaree. Ah, loolu sëñ Moustapha am na am na solo Idriss yow ban ban message nga bëgg jeex. waaw man de mécanicien yi nguur gi moo ngi xepp loo xam ne ne secteur boo xam ne ne ay milliards moo ciy génn. parce que d'après 6 1999 98 99 ba ñu xaymaa secteur bi bu muy génnee ci xaalis année boobu toll woon na si 14 milliards. Mm-hmm. tu vois. léegi yokk na bu baax. waaw 14 milliards quatre vingt quatre vingt euh, dix neuf ak léegi kañ. Mm-hmm. yokku na bu baax a baax a baax. Mm-hmm. te mécanicien yi ku ñu dàq sa école ba méca euh, ci ci dañ la yóbbu nga jàng mécanique. bon wala tailleur wala tôlier wala leneen ah du rek. waaw hmm. non mécanicien yi bëri na yoo xam ne ñu bëri ñoo xam ne da di daax ñu ah, former leen ay format ay formateur lañ ñoom dañuy former ba pare ñoom amuñu subvention de l' état dara hmm. dañuy réduire ñoom maanaam chômage mais mécaniciens yi pour man loolu ñoom waruñu ko jooy man hmm. wax naa leen ko mécaniciens yi nekk nañ kuréel euh, am nañ mbooloo boo xam ni tey ñoom soxlawuñu kenn ku dul seen bopp ak seen borom mooy mécaniciens yi tey boo joon revasse boobu garage mécanique bu nekk weer wu ne bu joxe woon 5000 francs loolu yow Idriss yow garage mécanicien yëpp dem nga fa gis nga loolu lu muy toll. bu at bi jeexee dinañ am loo xam ni. Mm-hmm. wàllum formation dinañ ko mën a gérer ba pare demal seen bopp. non comme li nga wax rek comme euh, Beden 1 ak 2 1700 personnes ñoo fay xëy. xoolal loolu xoolal loolu. ah 57 restaurant fa nekk. gis nga ñaata garage compté nga garage. 300 garage xoolal loolu. tu vois 300 garage mais problème bi problème bi moom mooy mécanicien yi. comme li ma lay wax rek dama ne ñoom soxlawuñu état. déedéet déedéet boobu ànd naa si de Idriss. au contraire état moo leen soxla. waaw mais ñoom li ñuy soxla rek moom mooy ay site. ay site dëgg la. ay site. Mhm. comme tey VDN bi maa leen wax ne ne pour ñu jéem a nekk benn parce que boo nekkul benn. Mhm. dañuy xëy rek jëlee leen fi. Ah, doole suuf soosu nguur gee ko moom. wóor na ma wóor na ma am na koo xam ne ne mu ngi jéem a dil lan la fay lan lan la fay tabax. Ah, te mbooloo mooy doole. te bu ñu nekkoon benn. Hmm. te ñoom bu leen joxoon suuf si rek dinañ am ay partenaires yoo xam ne ne. pour tabaxal leen tabaxal leen ba euh, tabaxal leen ay garage moderne du dara. non mais parce que tamit garage yi comme ni ñu ko wax garage sauvage la. xam nga da ngay ñëw rek benn suuf noonu jël sa seng teg. huile bi tey ñu sotti fii euh, dégg nga maam suba. Euh, ndox mi jaar na le xam nga yooyu dafa jaadul c'est-à-dire aussi bien mécaniciens yi tôliers yi menuisiers yi nguur gi dafa war a bay waaram si ñu teg leen foo xam ne fu ñu war a mën a liggéeyee la ak jumtuwaay léegi nag ñoom tey seen xam-xam bi ñu am keroog ñoom euh, bi ñu fi ñëwee ñoom Mohamed Gueye yooyu maa leen ziar ñoom dañu ne mhm. oto sax ñoom seen tey mécanicien ñu ne ñoom mun nañ ko defar mun nañ ko defar parce que ñoom aay bi ñu aay Idriss mooy suñu mécaniciens yi boo demee ay France ay Amérique mécaniciens yi ñoom dañuy diagnostiquer remplacer pièce. Mm. mais fi mécanicien da la koy defaral. da koy da koy modifier dañu ay léegi nag. waaw li ma wax rek moom mooy. secteur bi jàpp nañu waaw. la ci nekk moom moo bëri maanaam assurance baa ngi ci société pétrole baa ngi ci téléphonique yi Tigo wala Orange ñu ñëpp mën na leen jàppale vraiment ñoom ñu mën a am koom-koom parce que mécanicien bu feebaree mënul faju amul assurance bu retraité. amul amul amul assurance retraite mais nag loolu yëpp dañ leen war a accompagner parce que xam lu tax nit ki fonctionnaire bi moom dañ koy dagg weer ne ko da nga war a fay IPRES ba mu xam ne ne amul kenn koo xam day liggéey naan ma non bu leen ma dagg IPRES tu vois donc loolu dañ leen war a accompagner dimbali leen ba vraiment bu ñu amee garage moderne ñoom dinañ contribuer ci développement réew mi. loolu loolu am na solo. mais il faut il faut nag. Ah, ñu ñëw comme li ma ni boo mënee ñëw. xool li nekk secteur ak li ko bloqué li tax fédération bi doxul parce que nag kaay ma xamal la am na ñoo xam ne ci biir dañuy politique. waa lépp am na si. waa dañuy jël xaalis dañuy dem no xam naa ne moom il faut ñu waxtaanaat ci. waaw loolu mais loolu yëpp am na si mais affaire nit la. xam nga regroupement fu mu am. waaw lu ne mun na am si biir. Mhm. ay nit ñoom ñoo si taxaw. Mhm. te nit moom euh, matul. Euh, Moustapha waxtu bi euh, jàpp nañu waaw yokk rek moom Sénégal. li ci njëkk parce que man kooku defe naa ni léegi ñëpp xam nañ ko moom mooy euh, pays mënul développer sans mu sëkkandiku ci làngam Islande trois cent mille lañu Islande trois cent et quelques mille seen langue seen langue nationale mooy bi ñu nàmp donc kooku tey te maa ngi gis benn information ñu ne xaw ma fan euh, dakaar la xaw ma quatre-vingt-cinq pour cent des élèves mënuñu lire mhm. donc xoolal vivier boobu du yàqu parce que dañu leen xañ seen langue privilégié beneen langue néew ma nag ñu bàyyi beneen langue bi mais waroon am na ñu ciy yëngatu mais waroon nañoo gën a jàppale suñu langue di ko dugal en douceur ba nga xamante ne xale bi parce que yow ni ngay exprimer woo ci olof muy gën a aise que ni ngay exprimer woo ci ci ci ci kii làkku jàmbur voilà xaalisu jàmbur voilà kenn mënu ci développé kooku xam nga réew mi lan la gëm-gëm gis nga booy julli te ñëw rek ne dama war a julli rek julli dem sëlmal da lay sànniwaat julli bi mm-hmm. gars yi dañu gëmul lu ñuy wax. Mhm. dañ ko war a gëm. gis nga pas-pas mu nekk pas-pas. Mhm. gis nga man ba may ñëw fii dañ ma naan bul dem ci tunkara da ngay damatee dina la wàññ ma ah. man sama réew. bu doon tey dama war a xeexante ku tunkara sax dinaa xeexante pour. mais fii amul loolu ah, amul fii non pour jàllale sama message. mais fii amul loolu parce que dama ko gëm euh, loolu accusation gratuite la boo xam ne euh, ñu ngi leen di gërëm. Euh, tey dañu am ñaari téere yoo xam ne moom lañ leen bugg dërtal téere yi. Euh, bi si njëkk euh, le contrôle du licenciement des délégués du personnel au Sénégal kii Babacar jaxate moom moo ko bind téere bu am solo Babacar jaxate di si wax euh, maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy représenté liggéeykat yi ñooñu est-ce que nan lañ leen di daaxee war nañ leen daax wala waruñu leen daax maanaam daal di wax lépp loo xam ne mu ngi jëm si biir këru liggéeyukaay yi ak ñi nga xam ñoom ñooy représenté liggéeyukaay yi beneen téere bi téere bu am solo bu Kadiali Diakhaté bind euh, téere bi mi ngi tudd promesse et désespoir d'un service public la radiodiffusion télévision sénégalaise Kadiali Diakhaté yàgg lool foofu RTS euh, ñëw def càmbar bu am solo dugg ci RTS wax ñu RTS kañ la euh, juddu fan la jaar lan mooy histoire am ak lan mooy jafe-jafe yi mu am ak RTS nan lañ mën a def ba mu doon télé boo xam ne ak rajo boo xam ne ñëpp dañ siy kontaan ñaari télé yoo xam ni Euh, bii di le contrôle du licenciement des délégués du personnel au Sénégal ak promesse et désespoir d'un service public bu Kadiali Diakhaté bii di Babacar Diakhaté Kadiali Diakité bi Babacar Diakhaté euh, téere la yoo xam ni jàng leen euh, dina am solo ñu ngi leen di gërëm yow Idrissa si nga am xalaat yu am solo si wàllu mécanicien yi nan lañ leen di suqalee ak it Moustapha yàgg lool fële Belgique ñëw joxe fi si xalaat yu am solo gërëm mbooleemu techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak man ngir amal jotaay bi euh, Nafisatu Diagne ñu ngi koy gërëm Demba Seck euh, ak euh, Judith ñoom Ousseynou ñoom Oumar ñoom mbooleem ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi si taxaw gërëm leen caméraman yi moom xam nga bu baax ne dañ leen war a gërëm bu baax ñoom Daba nga xam ni ñoom ñu mun caméra ah fu ñu fu maanaam bu ñu la caméra rek nga xam ne ñi caméra nañu Euh, gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan si àdduna bi yëpp euh, waa France yi euh, comme ni ma koy faral di waxee émission bi soo ko bëgg seetaanee soo ko bëgg seetaanaat mun ngeen dem xalima point com ngeen xool ko fa bés bu nekk ñu jox leen dig daje ëllëg bu soowee yàlla wasalaam.